rahmatulah taala wa barakaatuhu. jërëjëf mbaa yaa ngi ci jàmm. <laughs> maa ngi sant bu baax. mbaa dara mbaa dara jotu la. Hmm. tàngoor rek. macha allah. ñu sant yàlla waa <laughs> plateau bi yëpp yëpp yëpp yëpp. lu muy ma ko rek hmm? bu bu démb rek ma wax nuyoo na sama nuyoo bi dafa gàtt tey ma nuyoo nuyoo bu nuyoo normal doo ko wax. sama maa ngi sérieux maa ngi sérieux yaa ngi may. Ah, waaw il fait très chaud ah, tàngoor bi pour pour nga nelaw léegi c'est jafe na trop man kay dama xaw ma ban saison lañu nekk da ngay yeewu sax ci guddi gi xëppoo waat ndox mën a tëddaat démb dafa ngelaw benn instant benn ngelaw boo xam dama ne day taw ñu ne xaw ma ban côté moo doon taw géej waaye ou quelque chose comme ça ah, mbaawus taw na démb waaw démb am na fu taw mm, mbaawus taw na waaw ok mm-hmm. macha allah di nuyu ñëpp Maria di ziar waa plateau bi yëpp mm-hmm. di ziar grand Mamadou Sy Albert grand Adama Fall ak gan gi ñu am tey ak waa Thiès ak waa Thiès waa Taxi Kaw foofu mooy The Roots foofu laa cosaano waa Somme hmm. waa Grand Standing hmm. waaw waa Touba baax waaw di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp waa Diourbel waa Njaareem hmm. waaw ndàngaan moom dama leen dóor temps yi ci xeer ñoom koy <laughs> ñu ngi leen bàyyee sax waa Wakaam di nuyu waa Wakaam ak waa Ngor waa Wakaam les dignitaires waa Wakaam yëpp gone mag ñëpp daal. yaa nuyu waa daal. parce que ñoom ñoo ñu dalal. kon war nañ leen euh, di fàttaliku. ñooy suñuy njaat dëkkandoo jàmm ci gën. ayca mu ngi noonu jërëjëf El Hadj Birame Camara mi ci mbaxane yi ay euh, doyen Mamadou Sy Albert bonjour. bonjour sër lay fay di gi. suñu invité bi doyen Mamadou Sy Albert mu ngi noonu Adama Fall à côté tey tardé wul salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah di la nuyu si sa allah verte bi rafet na comme d' habitude. ngi lay nuyu di la fay di la jox sa wàcc waaye di nuyu doyen di ko ñaanal yàlla comme d' habitude yàlla may ko gudd fan ak wér ak wérle. Hmm. bàyyi ko xelam ak xam-xamam. di hmm. nuyu sama mbokk wàccees boobu di Birama di ko nuyu di ko ziar di ko jox wàcc wàcce Mm-hmm. di nuyu sama sëriñ sëñ Sidi Alxuraan xam ne ñi gis na ngi ci jàmm gën si kàmbaaw di nuyu suñu xarit mi nga xam ne mi ngi safoo duñu seetaan tous les jours bu mm-hmm. Abdou Aziz Abdou Aziz Ndiaye ñu ngi koy nuyu di nuyu mm-hmm. gan gi di nuyu gan gi nga xam ni moom la ñu war a dalal tey voilà di nuyu ñëpp Adama Fall la ngi noonu a Camara ñu ngi nuyu suñu gan dalal ko plaisir la ñuy am barki démb rek ñu ngi koy tudd Mouhamed Moustapha Diagne di directeur de la formation et de la communication au ministère de l' biram mooy sunu gan. dafa mel ni moom tamit sax waa saa Kajoor la wala nitu Thiès. bon après moom il va choisir la casquette qui <laughs> qui lui va le mieux. muy bon dañ ne xuus kàpp fit leddam boo xool ba mu jot la rek solal jox naa la nitu Thiès jox naa la Kajoor Kajoor jox naa la lu Thiès waa wala saa Thiès. choisir le grand. man nga jël. non moom Thiès la baax na nii. dañoo <laughs> tontu rek. micro bi tànnoo yëpp. man tànn na man je suis Thiessois. ah tu es Thiessois ah bien nitu Thiès moom baaxul. déet waay ñu ngi lay dalal bu baax monsieur Diagne ñu ngi lay nuyu di la dalal sa biir gisaat la. waaw c'est ça. Mhm. maa ngi lay nuyu bu baax. Euh, vraiment di kontaan ci mise bi. Mhm. man damaa bëgg merci beaucoup <laughs> sañse di kontaan ci émission bi. Mhm. di nuyu sama jeune frère Birama. nga xam ne ñoo bokk Kajoor. Mm-hmm. mu nuyu Adama xam xamu woon ne Thiès la dëkk sax. Adama fépp la dëkk Adama c'est un sénégalais. di aussi le doyen si si Albert. Mm-hmm. di aussi émission bi neex ndax bee paase mu mujjoon naa def buzz def <laughs> naa. waaw mooy naa moom. nañ ko régler rek. nañu xool nu nuñ koy kiiyee rek. voilà waaw bu ngi noonu Mouhamed Moustapha Diagne ñu ngi koy dalal ci biir kër gi. nous sommes le 13 octobre 2023 ni ñu ko defee Birama tous les matins ñu xool la une des journaux. d'accord Maria kon ñu ànd ak duur mooy monter affaire temps suba teel la koy monter sept heures xadi ni ma monter naa ko Sonko obtient un répit enquête un répit mooy maanaam benn benn benn dallu bu ndaw en attendant les autres donc euh, sob mooy procès bi amoon démb sigi coor yu bëri ña nga woon ba ci guddi gi mm-hmm. ñëwaat nañu ci procès kon moom la titré le Sénégal dans un dans une de feu ah loolu wàllu tàggat yaram bi la peut-être yaa ma ciy gën a kii yow yaa ngi koy suivre wala ñu xool grec ñu moom moom kay moom hmm? na ko ñu ñu am kay waaw on a Cameroun Guinée ak Gambie waaw ah, Cameroun de gars moom xaw nañ ko kii nee nañ foofu moom dañ leen di duma. <laughs> on verra le juge si Faye réinscrit Sonko sur le listes électorales coup mm. de théâtre au euh, tribunal de grande instance de Ziguinchor. Mm. Maître Sidiki Kaba récusé par la société civile hmm? en tant que ministre de l'Intérieur donc euh, ñoom ils s'attendaient ak ce qu'on un ministre chargé des élections ku ñu ku féetewul ci benn chapelle donc euh, récusé par la société civile donc euh, présidentielle de 2024 le temps des incertitudes journal le temps mooy moo ko wax hmm? donc euh, gisaat naa fa gaal gi de gaal gi ci suuf à droite waaw mooy mbëkk mi ndax laa ak la fa am donc mënuñu ko bañ a wax ñëwaat nañ ci vox populi moom lu mu wax le juge ret rétabli Sonko l'état grippe la machine hmm? donc euh, mooy wàllum Ziguinchor les lion entrent en duel et deux derby ouest africain derby hmm. ban ak ban la Gambie Guinée Gambie ak Gambie hmm, donc euh, mu ngi noonu bés bi le jour Sonko gagne à domicile bii moom je pense que war naa ci mën a commentaire quoi parce que Sonko gagne à domicile moom vraiment euh, ça veut dire que bu ñëwoon dakaar day perte. Mhm. Sonko gagne à domicile et puis ñun en tant que Sénégalais je pense que Sénégal. amul ay kii Ziguinchor ak dakaar ak Diourbel. c'est chez nous. à domicile kay boo koy xanaa. donc euh, vraiment titre bi peut-être ñeneen yi gën ma ci ëpp xam-xam Sonko devient revient dans la course. Mhm. loolu aussi. Euh, revient bi heureusement que c'est mis en rouge donc euh, présidentielle 2024 ñëwaat nañ aussi ci sport ñëwaat nañ ci lay def mel ni c'est les zones aurifères les mines tribunal bi démb c'était pas seulement Sonko il y avait d'autres jours à Matam minu Matam bi c'était lan la woon du phosphate Euh, waaw genre yooyu la daal. phosphate la mm, Matam phosphate moo fa am waaw. Mm. dañ koy tëj. waaw tey parce que amoon na yàgg na am coow et puis parce que askan boobu xamuñu sax ni phosphate am na fa. une victoire en contentieux hmm? même si je ne suis plus le président du Sénégal Macky mooy wax foofu le président Macky Sall ci journal L'Observateur Sadio Mané tire une classique et des. une classique et des derby et des derby. loolu ci tirage démb bi ok Sud Quotidien le tribunal de Ziguinchor dit ñett hmm. ok xanaa il dit niet à l'agent judiciaire de l'État ou aux, aux de la partie civile. le juge de Ziguinchor réintègre Sonko procès sa radiation du fichier électoral euh, Sidiki Kaba et le devoir d'ingratitude loolu daf mel benn contribution la xaw ma kon moo ko signé nag Abdourahmane Diouf bu awale ok le juge récusé donne raison à Sonko récusé le juge recusé. par les gens judiciaires de l'État. oui. te c'est ce qu'ils ont loolu ma jaaxal man pour man kay recusé moo waroon nekk en rouge. double claque pour l'État. un ouvrier et un ex-immigré sauf à se comporter en vrai champion ou périr boobu c'est le sport te vraiment je pense que bëriwuma mm. commentaire quoi ñu dem xool beneen peut-être. camouflé pour l'État loolu aussi c'est autre chose camouflé ça veut dire beaucoup de choses mm. parce que un camouflé ça dire que euh, benn benn prox ndoolu ngay wut benn da ñuy wan lii pour waajal leneen en fait donc euh, ñoom tiire nañ déjà seeni mbir nee nañ c'est un pour l'État li am Ziguinchor on a vu aussi Aly Ngouille Ndiaye candidat on a aussi Doudou Ka qui euh, qui hérite du ministère de la coopération. de la coopération ouais, et de la remplace. Euh, Oulimata Sarr euh, kan moo ko remplacé euh, ministère de de de. Antoine. Euh... Antoine Mbengue mooy kan. Ah, ku bees. oui mhm. ok kon kooku moom jotuma koo xam. moo ko remplacé Morolan. Ah. <laughs> foofu as xam foofu politique am na fa. kan moo yoroon aviation euh, bu njëkk avant Doudou Ka c'était c'était kii um, euh, Sarr. oui euh, Alioune Sarr Alioune Sarr qui est candidat. et dans la zone. oui si il habite dans la zone. oui Noto Diobass Morolan tout ça c'est la même zone. un promoteur et un responsable de coopérative au banc des accusés. l'AGE l'agent judiciaire de de l'État c'est bii moom photo lañ ko <laughs> lañ ko tabal moom hmm? recuse le juge et forme un pourvoi en cassation ok donc ça veut dire que procès bi jeexagul ñuy pourvoir en cassation le juge Sabori Faye annule mesure le Sénégal face au Cameroun et la Guinée et à la Gambie journal L'As le soleil moom ñëw na ci leneen moom de 126 on est passé à 234. ñu retiré ñu retiré. seen candidat seen fichier waaw. un gouvernement de mission ou de démission point d'interrogation ça c'est le journal Tribune hmm? deux risques attendent Karim Wade hmm? Karim Meïssa Wade du PDS donc euh, dafa jeex wala libération 391 jeunes sénégalais vivent l'enfer à Dakhla waaw Dakhla dellu si waat na Hawa Thiam interpellé interpellé chez elle par la section de recherche Hawa Thiam Hawa Thiam mooy kan le tribunal de Ziguinchor exige la réintégration de Sonko Hawa Thiam Hawa Thiam ce nom quelque chose Point Actu dans la poule avec le Cameroun et ses voisines de la Guinée et de la Gambie. aja jeex na kon mu ngoog kon mooy njëkk a ci commentaire appel à aw cam moom laay xool ni ah? mhm. aw cam man appel à ah, insurrection aw cam moo kii fleur ñoo bokk parti <laughs> parce que ñoom ñaar seen ñaari photo la ñu la ko lañuy ñu teg doyen Mamadou Sy Albert la une des journaux bi moom mooy l'affaire euh, Sonko que juge bi il a ordonné euh, qu'il soit qu'il s'inscrive sur les listes électorales maintenant ce que peut-être presse bi li mu titré c'est autour de c'est une première victoire d'Ousmane Sonko depuis quand même euh, que Sonko a des problèmes avec la justice c'est la première fois qu'un juge euh, donne raison à, aux avocats d'Ousmane Sonko mm. bon maintenant il y le contexte de Ziguinchor euh, l'État va faire un recours Donc on est parti sur des recours euh, juridiques infinis. Mmh. Bon, euh, donc euh, l'affaire est loin d'être euh, d'être terminée. Euh, à part l'affaire de, de Sonko, maintenant il y a peut-être le débat sur, sur la, la, liberté, parce que quand même il y a un, maire, mmh. un maire de Bignonan qui a été interpellé. Mm. bon, plus euh, les prisonniers politiques. Hein. Il, y a, il, y a, une fille euh, qui est en prison depuis juin, simplement parce que nos postes. C'est ça, c'est inadmissible que, que le C'est inadmissible qu'on qu prive, qu prive les gens comme ça de leur liberté pendant cinq mois. Après, il y avoir un lieu, comme Je crois qu'il y a un problème. de wa le 26 c'est c'est un abus de de pouvoir parce que même mënoon na sax nekk entre les mains de la justice nga bàyyi ko mu ñibbi këram mais maintenir quelqu'un ki nga xam ni poste rek la def c'est une liberté d'expression bon le maire euh, c'est c'est grave parce que quand même c'est le premier magistrat euh, qui c'est vrai qu'il est dans la politique mais quand même un maire que, que tu l'interpelles tu l'arrêtes parce que simplement dafa ñëw pour jël des informations par rapport à ses euh, ses citoyens à ses parents cet abus-là je pense que la justice sénégalaise quand même elle vit des moments très douloureux mmh. très très douloureux euh, maintenant moi ce qui m'inquiète particulièrement c'est que nekkatul rek justice Pastef justice Ousmane Sonko mais c'est entre la, les acteurs de la famille judiciaire que les, les gens même se, se déchirent entre eux euh, c'est un mauvais signe pour notre justice moi en tout cas am personnellement mësuma gis la famille judiciaire divisée lu mënta ñëw ils se plient tous à la décision de justice hmm. mais fii xëccoo bi mu ngi ci biir euh, justice bi c'est un problème qu'on euh, a. Euh, maintenant, euh, c'est vrai que yàlla y comme activité dominante. Mm Sénégal mu ngi ci benn poule qui ne va pas être facile. Mm-hmm. mais je ne crois pas que qu que ce soit spécifique au Sénégal toutes les poules se se valent. bon que ñun xëy na on est trop. <laughs> nous faire peur. C'est ça, en mais en réalité, la, la Guinée, euh, c'est une grande équipe, c'est une équipe qui la progresse, Gambie aussi, la Gambie progresse. Hmm. Ah, les autres pays, le Cameroun, c'est la, bête noire du Sénégal <laughs> depuis hmm. des décennies. Mmh. Donc, je pense que les Sénégalais aussi, Et quand match amical avec le Cameroun lundi, euh, Ce qui fait que sur la Cannes, je, je pense que les équipes se valent. Maintenant, l'enjeu du Sénégal, c'est le titre. il faut pas qu'on voit euh, c'est vrai il faut passer par la poule bon mais enjeu ku ñu mënti daje que ce soit Gambie Guinée pour ñoom daanal Sénégal c'est daanal le mhm. champion en titre ah oui. donc c'est ça l'enjeu il faut mhm. qu'on se prépare à, euh, sur le plan psychologique moral sportif ñu xam ne que ce ne sera pas facile mhm. parce que c'est rare d'ailleurs que nga am titre bi nga compétir nga préserver c'est extrêmement rare c'est mm. c'est des équipes exceptionnelles mm. comme euh, l'Algérie ou l'Égypte euh, euh, le Cameroun mais c'est exceptionnel mm. et d'autant que fii fu ñu nekk nii bon Cameroun c'est une bête noire mais c'est la Côte d'Ivoire qui organise nous on connaît <laughs> les Ivoiriens nous connaissent bien donc je pense qu'il y a un travail euh, psychologique qu'il faut faire pour le pour l'équipe pour l'accompagner ah, euh, je crois que surtout du côté la presse voilà, Aliou a une lourde responsabilité. Bon, maintenant, l'autre problème, dernier problème, c'est par rapport quand même à Sidiki Kaba. C'est mal parti pour lui. Donc, il n'a même pas pris fonction, il est contesté. Euh, donc, à ce niveau, c'est pas, c'est pas, c'est pas gênant pour, pour, pour Sidiki. Hein, il connaît, il vient de la société civile d'ailleurs. donc lui aussi il doit pas à mon avis c'est une alerte tout simplement mm-hmm. mais il faut pas qu'il engage l'élection dans la contestation à mon avis ce serait vraiment mauvais signe que mu cristalliser la lutte de l'opposition mmh. il faut essayer de désamorcer mu bañ a am le le problème de de mm-hmm. qui a été contesté jusqu'au bout depuis le début jusqu'à son départ Et euh, je crois qu'à ce niveau-là, il y a, comme tu dis, il y problème de, communication du ministre. Mmh. Bon, euh, dernier peut-être point, c'est cette douleur-là, c'est les Sénégalais à l'étranger. Ouais. C'est comme s'ils sont abandonnés. C est, c depuis presque dix jours, on ne parle que de ça. Mais je ne vois pas le ministère des Affaires étrangères jël benn euh, action d'envergure pour ñu sentir ne que l'État est à côté de ces de ces mhm. Sénégalais là et vraiment moi je suis un peu inquiet je le disais hier c'est affaire euh, mbëkk mi soo moytul loolu moo nekk moo nar a nekk problème qui va cristalliser toute la campagne et ça c'est pas bon signe mhm. je sais pas comment le gouvernement va s'y prendre mais suñu moytul Euh, le problème du mbëkk là ça ça va <laughs> envenimer ça va envenimer la campagne. même. en parlant même de campagne la Coupe d'Afrique déjà c'est au mois de janvier est-ce qu'on aura même le temps li ñuy wax nañu soutenir sax y a les ministres qui sont qui sont qui sont politiques euh, bon ça va être compliqué de ñu concentrer aussi ci Coupe d'Afrique bi en même temps. Il y a aussi dernier point excuse-moi c'est sur euh, le soleil. Mhm. cest dire euh, le, nombre de candidats mais vraiment ça il faut essayer de <laughs> ouais, il faut voir comment gérer sa ñu bañ a xaar euh, la déception. c'est une candidature hein? laquelle non elle a le droit <laughs> ça va être plus bon mais le problème pour moi c'est que on va éliminer beaucoup de gens mmh. Mmh. on va éliminer on l'a dit hier bon il y a entre guillemets fantaisistes mais c'est sûr que sur plus de deux cent nga jël ci dix wala quinze la contestation risque d'être un problème sérieux c'est la crédibilité même de de de, la campagne je mm. pense que vraiment le, le gouvernement le, premier ministre et ak euh, le président Sall war nañu bàyyi ci xel ci problème boobu ko d'accord oui euh, merci Maria euh, c'est vrai la une des journaux c'est c'est par rapport à l'actualité du jour parce que aussi l'actualité c'était l'affaire Ousmane Sonko et le tirage Coupe d'Afrique donc c'est normal que presse bi ñëw ci en grande pompe c'est normal pour nit ñi mën a xam maintenant aujourd'hui je dirais que je ne vais pas entendre yaakaar naa duma dégg ne la justice n'est pas indépendante parce que une décision de justice a été prise que citoyen ci citoyen yëpp dañ ko war a respecter saluer ko banque parce que une décision de justice kenn war a ci discuter kenn war ko waxtaane parce que ils ont ils ont pris une décision donc euh, pour wone ni rek c'est une c'est le droit qui a été dit sur cette affaire là et c'est le droit qui a été dit sur sur toutes les autres affaires dans ce pays là donc euh, état def na recours dem na pour pourvoi en cassation nañu bool xool parce que c'est pas une situation qui est définitive nañu xool foo affaire di di feeñee maintenant ce qui me dérange un peu on on dit ça me dérange un peu parce que ba décision yi da daanoo euh, contre lui à Dakar on n'avait pas dit Dakar on n'a pas mm. stigmatisé la région loolu day indi division donc Ziguinchor ci biir Sénégal la bokk nañ koy yemale foofu mm-hmm. maintenant pour yaa dinaa ci wax parce que waxoon naa ci démb mooy l'affaire du ministère de l'intérieur qui doit organiser bon même si si Antoine Diome a été récusé il n'a il n'a jamais détenu carte membre Alliance pour la République pour une première fois aujourd'hui on a quelqu'un qui est membre du SEN qui détient la carte membre donc foofu la peut-être situation bi war toll foofu mooy différence entre Antoine Diome ak Sidiki Kaba Antoine n'est pas militant de l'APR il n'est pas responsable bokkul SEN bokkul fenn du participer sax à des mais celui-là il est parti aux élections il est il est membre foofu la ñu war a taxaw porter discussion analyse bi ñu war a def. Mm. maintenant pourquoi chaise musicale pourquoi Sidiki Kaba à cette heure à quatre mois des élections présidentielles pourquoi un responsable de l'APR à quatre mois de l'élection présidentielle peut-être foofu la ñu war a réfléchir maintenant ce qui est fait est fait la société civile mi ngi koy récuser c'est aux membres du parti politique des gens du des partis politiques qui sont des candidats qui doivent porter pour peut-être euh, Sidiki bañ a wala direction générale des élections comme ni mu amoon en 2012 ñu am ministre chargé des élections qui va organiser parce que yaakaar naa ni ça combat et l'opposition d'alors porté woon na combat bi ba Ablaye Wade par élégance mayoon leen ko cette opposition doit faire le combat pour Abla pour président Macky Sall may ko opposition bi pour ñu am un directeur des élections parce que aussi euh, waruñu dugg ci élection ak ak doute mm-hmm. waruñu dugg ci ci élection situation boobu maintenant euh, Coupe d'Afrique bi charme bi mooy pour pour le Sénégal mooy CHAN bi man moom laa jàpp des pays frères qui vont se retrouver euh, ci ci ci période boobu euh, la Gambie la. la Guinée Conakry le Cameroun qui nous a le temps battu peut-être si yàlla dinañu may ñu mën a jël suñu revanche fii maintenant c'est pas une poule du fa du lu yomb du poule bu yomb amatul loolu ci football amatul loolu ci yomb donc nous sommes une équipe à battre mm-hmm. ce jour-là maintenant Euh, il faut changer de stratégie voir naka lañ koy ñun ñëpp di ko wax nga ko sànq àndandoo encore li àndandoo wuti ndam li wax nga ko sànq nous serons en période de campagne électorale. est-ce que les ministres la fekk sax. voilà est-ce que les ministres vont faire le que le ministre du sport qui est éminemment politique. Mhm. va faire le travail. pour accompagner l'équipe nationale pour les mettre dans les conditions et les accompagner et la fédération et la fédération bon fédération sax mën nañu wax ni ils sont oui mun nañ ko jàpp parce que le président de la fédération il y a des ministres il y les membres de la fédération qui sont éminemment politiques qui doivent donc waruñu bàyyi ci période boobu équipe nationale bi seul donc loolu mooy wane di peut-être le gouvernement bi ñu teg démb xaw ma barki démb waroon nañ ci sóor qualification bi pour permettre à am benn ministre de sport boo xamante ni peut-être dina mën a am jotu équipe nationale bi. waaw on espère que bi yoon dinañ am jotu tamit jël eh, li ma waxoon daal sama plaidoyer rek sama cri de cœur mooy fu ñuy yóbboo yenn nit yi en coupe d'Afrique ou coupe du monde nañu jël les écoles de. football les écoles pour ñu participer xale yi waaw nañ leen jël ñu yóbbu leen ñu dem. ñu xool mais puisque noonu la daan avec avec avec ah, Matar c'était les gens avec Matar c'était les gens de Fatick ñoo daan dem. avec Lat Diop. non c'est vrai en fait en fait dama xam ne yow tu es tu es passionné de football. xale yi football la ñu bëgg. mais dañ leen di jël teg leen ci RTS wala yooyu ñuy tàccu di seetaan comme ñun ni ñu toogee suñu kër. mais autant les prendre waaw autant les prendre nga yóbbu leen ñoom ñu découvrir beneen monde gën a gën a. gën a gën a yeewaat seen passion de campagne électorale. quand même kenn du jël sa militant du yóbbu. parce que soo jëlee sa militant di yóbbu du du participer ci campagne nañ ko teel a préparer loolu moom <laughs> je pense que kenn du jëm seen militant yi duñu la fédération non man daal c'est un message que je lance à la fédération waxuma sax ministre des sports je ne le connais pas mais je lance un message à la fédération ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax a baax les équipes de football ah les les les écoles de football la ligue amateur ñooñu noonu yëpp nañu jël ñooñu ñi nga xam ne ñoom football la dund ñu yóbbu leen ñu dund football te bu ñu demee ñu am ngoru bañ a daw ñoom itam parce que Ablaye Diaw maa ngi koy dégg keroog muy wax ne mos na leen dal donc dañuy dañuy découragé parfois mais nag quand même mieux vaut ku nekk ci milieu ba mu nekk parce que ñuy def cinéma bu amee festival cinéma FESPACO ñiy def cinéma ñooy dem bu amee leneen ak leneen c'est vrai que c'est une coupe d'Afrique mais ngir yàlla yóbbu leen xale yi yóbbu leen école de football yi ñu dem ñu supporter ñooñu ñooy dund football nañ leen yóbbu ñu dund ko en direct voilà Côte d'Ivoire soriwul de en tout cas c'est un cri de cœur boo xam ne maa ngi leen koy lancé Augustin Senghor ku fa daw lan ngay def xanaa da dem déedéet non façon de dire que ñoom mais fi ne nii yow gars yaa ngi génn di dem Maroc di <laughs> <laughs> mais daal de toute façon c'est un message boo xam ne ñu ngi leen koy lancer ñu bàyyi ci xel day fekk ñu xaw a jege campagne électorale bi mais quand même les écoles de football sont là bëri nañu keroog fii bi fi ki toogee euh, Djibril Wade wax nañ ñaata école de football la ñu am ñaata équipe la ñu am ligue amateur bi mu ngi fi ab Ablaye Seydou Sow ñoom ñëpp nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu yóbbu ñi nga xam ne ñoo di euh, xale yi ñu yóbbu influenceurs yi <laughs> monsieur Diagne daa une des journaux tey loolu la ñu xëyee tey dugguñu seen domaine ci yii bi de jërëjëf mm. xam ni mbiri Ousmane Sonko ko il faut laisser mm. les choses les choses ñu ñu continuer ñu mm. se faire je pense comme li Adama wax dëkk bi man man de gëm naa ne am na yoon mm. waaw mais nag yoon mënuñu toog rek ñu ni dañ koy dañ koy évaluer par rapport ak politiciens yi parce ah. que lii dem yoon chaque jour ci tribunaux yi politiciens yi zéro virgule zéro euh, un pour cent nañ ci doon donc yoon moom am na ci dëkk bi waaw euh, politiciens yi nag moom euh, ku toog yoon baax na ku toogul rek ne voilà seen avis pour man sax amul amul solo mais yoon moom ko deful dara du fa dem mhm. bon xale yi aussi nekk ci ci ci ci ci réseaux sociaux yi dañu seet li ñuy wax réew mi fi mu toll nii àdduna sax laay wax nga xam ne fépp mu ngi boy bu fekkente ni da nga yor sa sa waajur ñu yaakaar la jàngal la nga war a góorgóorlu euh, dimbali leen dimbali sa réew wax dëgg yàlla nga toog ci réseaux sociaux yi def ay appel à insurrection di exposer sa bopp ñu lay yóbbu ay kaso ay cinq mois inutilement te li ñu si bëri sax ay bëgg bës rek mooy tax li ñuy wax li ñuy wax sax ñu si bëri gëmuñu ko wala xamuñu ci dara donc réew boo fa nekkee dafa am lu ñu war a wax même kër même kër kër dafa war a am lu ñu war a wax ak lu ñu warta wax parce que fii réew mi toll li ñu dund ci violence at mii ak at ma ak ma weesu nga toog di def ay sénégalais levez-vous nangam nangam ci réew moo xam ne ñetti fan ñetti fan yu nekk ñu woote Sénégal ñetti fan yu nekk ñu woote ah oui c'est vrai ñetti fan yu nekk moo am élection bay mm, dégg ma la wax 2012 ak léegi am na mos neuf élection huit neuf élection onze élection kon kon nit ñi am nañu fu ñu fu ñu waree seen naxar parce que mën nañu changer élection aussi boo kenn mënoon a sàcc législative yi passé du deme ni mu demee. Mm-hmm. parce que quand même on a perdu la majorité. lépp mm-hmm. mu xamante ne bii koy organiser élection yi daanaka perte na ko tuuti mu perte ko. Mm-hmm. amuñu problème mu fichier man loolu la gëm. depuis mille fii Sénégal capital bi opposition bi moo koy gañe. ban pouvoir moo bëggul gañe euh, capital donc amuñu problème yooyu parce que fii nit ñi bu ñuy voté. dañuy dem ba mu boo leen joxee xaalis dañuy dem ba ca bañ gàppa nga <laughs> ci ci mais dañuy isoloir bi dañuy tànn ku leen neex donc vraiment yooyu bu ñu bu ñu tànkal quoi ay mm. fichier beeg def naa nga dugg na fii Sénégal kenn mënu leen a fàllu ku ñu bëggul loolu mooy dëgg mooy loolu mooy dëgg loolu moom rek nga la question des des des élections rek lañ ko yàgg na depuis temps PS il faut qu'on passe à autre chose li ci des aussi je pense que Sénégal léegi mën na football tranquillement parce que mm. Sénégal poids bi mu daan am mooy musuma gagné coupe d'Afrique kooku poids la woon dañ ko daan yóbbaale. coupe d'Afrique. yow da bëgg la da nga gëm ne dañu war a mën bii yoon léegi mën nañu fri quoi parce que gagné nañ coupe d'Afrique donc euh, voilà équipe yëpp dañ leen di <coughs> bëgg a gagné maintenant il faut avoir une stratégie. il faut avoir une stratégie équipe bu ñëw euh, nga nga duma ko te te yéen li ci solo. gars yi aussi bañ dem ci sëriñ yi di di xon équipe bi. <laughs> loolu tam baaxul. waaw nañ ci ñëpp comme ni nga ko waxee ci ñëpp jàpp rek. Euh, waaw am na ñoo xam ni euh, place su Aliou Cissé la ñu bëgg parce que on a on a vu ci en temps da di équipe nationale di football ñu leen di ñu leen sànni ay kii ay ay saafara hmm. ay yu demee noonu donc nañ ñëpp kii rek manko benno euh, comme ça de façon nag football nag moom amatul équipe bu ndaw ça il faut que tout le monde le hmm. ce n'est pas une science exacte Cap Vert ak Brésil ci am amatul équipe bu ndaw les football ñëpp ko mën. Ah, du ñu ngi nii dóor Brésil. voilà ku ko xalaatoon suñu àdduna dina match amical Cameroun Sénégal. moom mais que match boobu dina am. ah oui man d'après ce que j'ai entendu aux dernières infos ce matin loolu la ñu wax nee nañ que match n'a pas été dañ ne woon dañ koy annulé xool ndax duñu changé et tout on aura peut-être d'autres informations peut-être Grégoire dinañu mais daal li ma li dégg man ci fajar loolu la parce que démb on parlait d'annuler le match ak yooyu mais bon à ce qu'il paraît nee nañu euh, Augustin wax na ne du ko duñu ko duñu ko ko annuler mais bon c'est match amical et puis y a plus de matchs amicaux <laughs> yëpp ay match la Birama ah, une des journaux wax ci sport bi rek. comme mhm. non tey da sama xalaat. comme euh, Sénégal nee naa euh, pour doon. yéeg au sommet yomb euh, metti na yombul mais li gën a jafe mooy yéeg au sommet ba pare càng fa loolu moo gën a jafe donc euh, ñafe nañu ba yéeg au sommet wane ni on est on est championne on est une équipe championne il faut que ñu confirmer que ni affaire bi du tànduus c'est pas parce que Algérie damul woon moo tax ñu jël coupe bi ah, il faut que ñu confirmer loolu parce que Algérie ba mu demee daf ñu dóor dóoraat ñu ba pare dóoraat ba pare ñëwaat dóoraat ñu te ba ñuy gagné coupe d'Afrique Algérie damul woon. il faut que man pour man boo nee man maay roi de arènes danga war a mën a daan mbër yëpp. boobu moom dañ cee d'accord man waroo am except euh, exempté ci diw wala ci diw. wala daan ci roi des comme élection présidentielle rek. Mm. boo waree doon mbër mi waroo dindi kii wala kay ñëpp nga war a terrasser dooro nekk roi léegi nag champion on est l'équipe championne ñun ñooy cible bi fi ñu toll nii. ñëpp ñun la ñuy duma pour que ni ñoom am nañ potentialité dóor ñu sax ñu éliminer leen day doon honneur ci ñenn ñi donc il faut que ñun ñu renforcer waat suñu ndeysaan toujours suñu début day métti waaw il faut que ñu renforcer waat donc ci la ñuy naan ma non c'est man xam lu ma bëggul ay dañuy jàll yooyu moom est lu moo ñu jëkk gambi ngay jëkk tase genre yooyu noonu dër bi yooyu ngay wax du ay caaxaan équipe yooyu noonu nga dëkkandoo yooyu dañ seen bakken lañ ciy teg te gambi ay njaay ak jóob fa ne comme ñu seen bakkan lañ ci teg li ngay wax ci terrain bi comme nawetaan lay mel comme nawetaan li ngay wax ci terrain bi loolu la ñuy wax terrain bi loo wax ñu dégg ko ak yàlla donc euh, ay boo naan ko fattal ah, ah, ah, ma foofu da koy dégg waaw boo nee fattal ma foofu da koy dégg léegi Sadio Mané euh, wax na ko démb de ah donc wax na ko de nee na hmm? nee na nee na moom il sait que amatul équipe bu ndaw et que le Sénégal est l'équipe à battre moo tax ma ne la yenn saa yi nañu góorgóorlu te euh, concentré les double nationalité yi baax na mais am na match yoo xamante ni da ngay indi der yi ngay indi voilà ay der boo yi ngay jël boo yi ngay jël yóbbu leen ni dañoo joué ah. ci tànku neen ak tic tic ba tas léegi euh, maa ngi dégg sama grand Diagne ji wax sànq benn mbir ma jaaxal nee na yoon ku deful dara du fa dem <laughs> loolu je suis pas d'accord nit def jiñ nañ ko ba tay yóbbu ko ci yoon yoon seetal ko mu set wecc ni deful dara laalewul jegewul donc boo nee yoon ku deful dara du fa dem grand foofu euh, je pense que war nañ ko war nañu xoolaat wax jooju. bu demee tam dina dellusi. ah waaw mais une crise ba tey rek ba tey rek leneen muy wàllum euh, émigration clandestine man baab su ma amoon message bi may yónnee jeunes yi ndaw ñi mooy yéen a ngi dem yéen a ngi dee mm-hmm. nit boo nekkee sa dëkk wala sa kër am fa lu la metti da nga ko fay xeex ba loolu jóge fa. Mm-hmm. d'accord élection yaa ngi ñëw. Mm-hmm. situation dëkk bi neexul la toogal ci dëkk bi nga saafara ko. au moins nga am benn fierte que ni man def naa lu tax dëkk bi soppeeku. bokkoon naa mais dafa metti damay daw. après toog fële di tànkal nit ñi naan il faut sa battre il faut se battre man benn Sénégal nekk dans la diaspora di ma jox ay instruction ci sama réew. dëgg la. Hmm? xuloo naa ci nit ba tàyyi du yow yaay toog foofu naan da ngeen ñàkk fayda yow ñëwal xeex xeex bi. Hmm. Hmm? yow yaa ma wax li ma war a def. yow da nga daw préféré dem feneen. nekk fa ak lu la neex man fii ma nekk samay responsabilité man maa koy jëlee sama bopp loolu c'est autre Euh, beneen point bëgg naa la bàcc d'accord beneen point ah, hmm? d'accord bëri na ma ak yow gis gis la rek d'accord bëri nangu wala bañ nangu wala bañ non li nga wax mooy dëgg émigration clandestine pare naa ci parce que loolu fuite en avant la. non comme comme fuite en avant la taxaw xeex ko ba mu koy taxaw xeex ko fii. mais métti na daaw am na. ku hmm? may wax démb rek. Birama benn dëkk hmm. benn ndaw seen ne ma seen seen dëkk mu ne ma suñu dëkk amatul jeune. temps yi xoolal. booy bu ma xoolal laaj nga ne ma jaar na Nicaragua. ma ko mujjee ci côté ci côté kii bi noonu si ñoom mi ngi noonu séeréer nee ma suñu dëkk amatul jeu hmm? nee na ñëpp dem nañ. waaw ah, ah, Nicaragua non démb rek laa wax sama ñaari booy laaj naa ñu ne ma dem nañu Nicaragua lañ jaar est-ce que réellement xabtal lu ñu leen ñu génn. Eh, ban xabtal xabtal ñu bàyyi affaire sénégalais yi demee noonu dafa grave non dañu ragal dañu ragal ñemewuñu gis nga les autres seulement le Sénégal ah c'est oui mais du ñun rek la moitié ko gën bokk ma ci moo ko gën suñu cas non ah. suñu cas ñun on ñu xool suñu cas ko gérer il faut que mu am solution l'autre chose mooy lan yow da nga dangay da ngay dem ci dëkku tubaab bi lundi mardi nga liggéey non non non mm-hmm. ah, nga nekk en règle saa yi da ngay lu ne di nga ko daj tout à fait ñu bëri découragé nañu parce que mënuñoo supporter ñu dellu si waat. Mm-hmm. la nga wuti woon amoo ko. ba pare ñu delloo si la. waaw nga fexe ba dellu si waat te dootoo fa dellu. nga perte mm-hmm. xaalis hmm? ñi la gën a muñ peut-être toog peut-être ba leneen di am. immigration clandestine la aussi euh, euh, bu dee wàllu yoon moom mën duma ci sori nee nañ décision de justice waruñu commentaire bien sûr décision de justice dañ koy commentaire. procès en cours lañ dul commentaire mais décision de justice yoon may nañu ñu commentaire ci. Hmm. nga ni lii d' accord naa ma boo d' accordul sax nga ni damay pourvoir en cassation wala damay damay damay <coughs> yeneen pexe donc euh, li Kéba Mbaye doon wax rek est libre le juge qui veut être libre. Hmm. doyen Kéba Mbaye le juge qui veut être libre donc bu ñuy wax yenn magistrat yi. Euh, amuñu liberté wala la justice la justice n'est pas indépendante te boo leen ko laajee ñu ni la justice par essence et indépendante donc affaire bi du ci justice ci magistrat yi la est libre le juge qui veut être libre hmm. doyen Keba Mbaye loolu la waxoon euh, leneen li du ma ci dellu si wax nga ko mooy à domicile ah à domicile Sonko à domicile à Ziguinchor je sais pas lan lañ jublu ci titre boobu mais vraiment euh, jubilé bi nag bon je pense que justice bu ñu demee ba rendre décision ñuy jubilé parce que le droit a été dit vraiment war nañ xoolaat suñu droit. Hmm. war nañ xoolaat suñu droit bu dee dañuy hmm. rendre le droit. Hmm. dire le droit ñuy jubiler c' est parce que y' a y' a quelque chose qui ne va pas donc euh, war nañ ko xoolaat donc euh, bu agent judiciaire de l' état demee bay accuser le juge que ni dafa am ay lien de parenté avec un tel qui est proche de Sonko te loolu bu doon opposition moo ko def mais UMS day génn. UMS e day génne communiqué. parce que loolu defoon nañ ko attention. yàgg nañ ko def. nañ ko def non ci projet yi am na juge moom laa wax man la opposition da koy def souvent. ñëpp dañ leen di ŋàññi. mais Sénégal ñun ñëpp ay mbokk lañu. Hmm. ñëpp a bokk si réew mi. opposition da koy def pouvoir da koy def. Hmm. dem ba ci biir projet yow nan ngeen di demee ba ci biir procès naan diw da nga bokk diw bu bokk diw bu jege Sonko mais yéen ñi ko affecté Ziguinchor xamu leen ko woon bi ñu koy affecté Ziguinchor li taxoon ñu affecté Ziguinchor xam nañ ko. mais donc am na yoo xamante ni moi je pense que bu ñu ci duggee dinañ enliser wut vraiment mbir maa ngi noonu quoi. te Sénégal la yëpp Sénégal la. donc mbir maa ngi noonu quoi. alors de ñu wax ci li nga xam ne peut-être les journaux n'en ont pas parlé mais toute la semaine ñun ñu ngi ciy wax avant mu bi ba léegi muy école sénégalaise euh, qui a changé d'ailleurs de ministre. éducation nationale non c'est le même. c'est le même non éducation nationale. kan moo dem Talla décentralisation décentralisation ah oui je je je c'est ça c'est ça waaw. yow da nga fàtte ni. Talla jóge na mu ngi woon fële waaw fàtte naa ko ndeysaan xam nga sama nijaay bi fa nekk moo tax te moom jàngalekat la ngaari fay. jóge na foofu ah oui moo tax moo tax c'est vrai c'est vrai que jóge na foofu. ngaari mi ngi woon décentralisation. waaw mi ngi décentralisation Mamadou Talla waaw. comme conseil technique comme conseil technique waaw donc maa ngi leen di nuyu ndeysaan baaxal la affaire day changement yee bëri ba nga xam ne dangay ngay mm. changement yee bëri bokk kon mu ngi noonu alors euh, les maux qui gangrènent sénégalaise quelle solution pour sauver l'école aux grands mots les grands remèdes Birama Kamara billaahi feebar bu métti moom feebar bu métti bu jaxasoo garab yu saf sàpp rek te ñun dañoo gisagul dañoo gisagul benn kii à l'horizon buy dalal suñu xel ci école bi ah Bira non man kay dama dama d'accord man tey man nag Bira est-ce que du fin de semaine man tey li ma d'accord a yow bëri trop maa ko bind j'assume non moom grand mot les grands remèdes mais comment résoudre la problème euh, la problématique ou le le le ce qui gangrène l'école sénégalaise ah hmm? pourquoi ne pas prendre le taureau par les cornes surtout que surtout que les enseignants dañuy jël gaal gi léegi chaque mois yow ñu huit mille enseignants man mun naa yow kay ah. man mun naa wax sama xalaat wala da ngay jox non doyen mooy dem ba pare waaw moo tax ñu toog léegi kay léegi kay euh, sur le titre doyen d'abord sur le titre xam nga démb def na polémique ça a été un débat riche hmm. d'accord ma d'accord ma léegi ñu xool ce que ça va donner peut-être doyen waaw les les mots euh, de l'éducation moom sont connus mm-hmm. ah les mots euh, feebar bu école bi dafa feebar mm-hmm. bon maintenant feebar bi peut-être bu njëkk c'est euh, xam-xam bi sa xam xam-xam euh, ni muy jaare ci école bi euh, bari na ay gàllankoor c'est le problème de la transmission du savoir on mm-hmm. l'école est en crise il y a il y a une crise de transmission du savoir ça c'est au niveau de de l'enseignant mm-hmm. l'élève le parent d'élève l'État euh, mm-hmm. on a une crise d'orientation de de de l'école l'école est coupée de la société et coupée de la famille donc loolu problème euh, feebar bu bu rëy la qui est très complexe au niveau du du savoir bah, l'école est malade aussi dans son organisation que c'est tout le temps des conflits des grèves ça c'est depuis vingt ans trente ans un cycle de grève euh, euh, soo gisee tey jii par au sommet même de la de, de du système éducatif l'université n'a pas ouvert encore ses portes mm bon primaire mooy secondaire am na ñu ubbi mais ça démarre difficilement parce que tu as toujours les mêmes problèmes déficit d'enseignants déficit euh, de de de mat d'infrastructure mm. euh, bon des collectivités locales qui ont les des compétences mais qui n'ont pas de moyens financiers qui n'ont pas de ressources humaines mm. donc l'organisation de l'école pose problème il y euh, euh, à côté maintenant de de de, de deux crise-là, de transmission et organisation, c'est les moyens. Les, les moyens de l'école, les moyens financiers posent problème. Mmh. Il y a, il y a, euh, on est toujours déficitaire. Quels que soient le, le, les efforts que l'État a fait, on est dans une euh, problématique sans issue. Ah, on ne trouve pas encore réellement les moyens pour financer, pour financer l'école. Mmh. Maintenant, dernier mot euh, problème majeur, c'est la crise des valeurs. Hein. Mmh. Il y a mm. une crise sérieuse de, de, de, des repères de, l'école. Je pense que bon, les grands mots, fièvre on l'a diagnostiqué, on le sait. Mmh. Maintenant, les solutions, ben, le gouvernement essaye, euh, euh, on reconnaît à Macky Sall, concertation, bon, des engagements, mais pour l'essentiel, les concertations avaient pris euh, beaucoup de décisions, beaucoup de solutions, mais au finish, au finish on n'a pas mis en œuvre les, les, les, les recommandations des, des, des, concertations sur l'éducation. On, est, on, est, on tourne en rond, euh, ce qui fait que, bon, pour moi, euh, en tout cas, la solution, ma c'est comment, comment essayer d'avoir une école de la société. C'est ça l'enjeu. Tant qu'amuñu une école qui répond aux besoins de la société, l'école ne peut être qu'en crise. Mhm. comment arriver à cette école de la société? Ben, on revient à la case de départ, c'est les langues nationales. Mmh. Jusqu'à présent, il y a des expériences pilotes, il y mais on n'a pas, on n'arrive pas à généraliser l'introduction des langues nationales dans les âges. Ça, c'est un problème très sérieux. la transmission du savoir ne peut pas ne pas passer par les langues nationales. C'est le pilier. Maintenant, tu peux en rajouter euh, le français, l'anglais, l'espagnol, mais passage Bob, langue nationale, dans tous les systèmes éducatifs mondiaux. C'est la langue locale, c'est la langue de l'élève, c'est le véhicule de, de, la transmission. Donc le problème des langues nationales, euh, je crois que sont, sont posés. bon maintenant man particulièrement je travaille beaucoup sur euh, l'éducation traditionnelle euh, tel que je vois les élèves les étudiants pourquoi l'école est coupée de la société mmh. c'est parce que notre système éducatif de base ñun c'est l'éducation orale c'est l'éducation orale mhm. c'est ñun ñëpp on est passé par le père la mère la tante c'est une transmission orale transmission orale c'est ça Et là, est, elle est coupée. par euh, le français. Mhm. Maintenant, mmh. la transmission orale, il faut qu'on arrive à structurer euh, l'école autour d'une transmission orale. C'est ça le fondement d'une éducation africaine. Et je crois que pour moi, euh, euh problème Mais deuxième problème, c'est que tu prends les jeunes actuels. ils ne connaissent rien rien rien de l'éducation traditionnelle mm-hmm. le père la mère la tante la grand-mère tu, poses les questions au jeunes non c'est c'est quoi une grand-mère c'est quoi un grand-père c'est quoi l'arbre à palabres ils sont mm-hmm. coupés ils sont aujourd'hui dans le net euh, et, le net les éloigne du, du structure culturelle sociale pour moi vraiment si ñu bëggee am une école euh, il faut voir comment arriver à introduire les langues nationales mm -hmm. euh, l'éducation orale mais aussi les structures familiales mm -hmm. ça que boo xoolee même ñi nga xam ne jàng nañu ba pare ba am liggéey tey ji lu leen dese mooy éducation bi ñu amoon ci seen famille mhm. ku ci ku ci jaaxle da ngay dellu muy l'enseignant du supérieur l'enseignement du moyen du secondaire à chaque fois que tu as des problèmes de repères des problèmes de valeur tu retournes aux valeurs traditionnelles et pour man il faut il faut que l'école soit en adéquation avec ce, cet univers culturel là euh, ce qui fait que bon pour euh, terminer on a une école coupée je voulais pas caractériser c'est-à-dire que c'est une école française Comme notre administration. Comme notre administration. <laughs> Et l'école française, bon, c'est une école d'élite. Mm-hmm. C'est une mm-hmm. école d'élite. C'est-à-dire que nous savons ils ont des moyens de, de parler français, d'écrire français, d'être. S'ils ont un accompagnement, ils peuvent réussir. Tous les gens qui ont réussi là, bah, ils n'ont pas réussi par hasard. Parce qu'ils ont eu un, un, un, un, cadre, un accompagnement. Mais ceux qui ont c'est qui c'est principalement les enfants des, des parents qui n'ont pas de moyens. Hmm. Et, pour moi, c'est ça le problème de, de, fond pour les, pour les solutions. Maintenant, je termine par la volonté politique. Ça, ça dit que, bon, moi, je ne me fais pas d'illusions. Senghor est passé par là, a Nyom Yep. Bah, Est-ce qu'ils ont la volonté politique Est-ce qu'on a le courage de reconnaître la crise et je pense qu'à peu, à peu près hein, tout le monde sait par où il faut passer mais volonté politique bi defe naa mooy blocage bi ma bi ma gën a gis daal euh, ama amaguñu volonté politique comme par exemple les pays asiatiques et yàlla xam na ne en ce nou on était en avant sur sur les pays asiatiques mm -hmm. mais aujourd'hui on est derrière eux. Parce qu'on manque d'organisation et de discipline. et de volonté. et de volonté c'est par exemple sur les langues nationales les asiatiques koo ci gis avant ngay dem aujourd'hui pourquoi ils menacent les américains sur le au niveau technologique. Mm-hmm. parce que ils maîtrisent leur langue nationale. Mm-hmm. anglais bi bu ñëwee day yokk mais sur le plan technologique aujourd'hui les par exemple les chinois menacent sérieusement les américains. Mmh. mais ñun. moi je suis sûr certain que su suñu bàyyoon booy yi deux ans trois ans cinq ans dans les langues nationales ni ñu amee génie technologie ku leen bàyyi ils vont aller. Mhm. et la preuve am na ai ay xale yuy feeñ de plus en plus mais bon les gens n'en parlent pas ñuy créer ay affaires sont les jeunes yoo xam ne micro dégguñu sax français. mais dañu am kii xale yi créé nañ fi drone ñu créé nañ fi ay affaires kii mais ce sont de jeunes sénégalais malheureusement ils n'ont pas de promotion Facebook bi lañ leen di jàllale après jeex na Adama Fall. te ñu ngi euh, seen domaine yi ak doyen c'est l'enseignant qui parle. <laughs> Eh, Adama tamit. Euh, de doyen. Mmh. mais euh, le titre euh, c'est pour trouver des solutions par rapport à l'école sénégalaise. qui vit pour moi qui vit des difficultés énormes pour moi c'est deux difficultés pour man problème de vision et problème de management c'est-à-dire qui doit être à la tête du ministère de l'éducation nationale. tu n'es pas d'accord. non j'ai dit qui doit être. j'ai dit je ne suis pas d'accord ou pas xaw ma diw wala tamit c'est-à-dire si la vision est claire mooy li doyen doon wax quel type d'école nous voulons avoir ba pare. il faut qu'on règle ça d'abord est-ce que dañu war a am une école sénégalaise ou bien dañu war a am une école française parce que dañuy fàttaliku ni école française bi moom lañu jàng ba toll fii am ci niveau bi am ci expérience ba commencé ci liggéey mais monde bi dafa évoluer dem ci beneen teg beneen nit ñi on a vu que les pays développés sont passés par la langue même su nekkee au niveau de du ministère de l'éducation nationale peut-être moom dina ci wax on avait commencé par par la lecture par les langues nationales cette année dugal nañ les langues nationales ci carrément du CI au ce je pense pour pour ñu mën ci adopté wu. Mhm. trois langues je pense mais il faut ñu xam ban type bu école lañu ñu bëgg am mooy la vision est que dañu war a am école boo xamante ni day fermer xale yi ba pare ñu sànni leen ci mbedd mi walla est-ce dañu war a école boo xamante ni day jox compétence aux enfants parce que euh, Caril qui disait enseigner quelqu'un c'est lui permettre d'agir loolu la boroom xam-xam yi doon wax maintenant suñu régler question boobu ba pare ci la ñuy war a mën a toog régler nag kan ban profil la ñu war a am à la du ministère de l'éducation nationale parce que pour man c'est un ministère de wala c'est pas un ministère de non c'est un ministère boo xamante ni on doit pas avoir des des de des profils yoo xamante ni éminement politique. Mm-hmm. parce que su nekkee day am des profils éminemment pro, pro ci la ñuy am ci problème mu casting au niveau des enseignants qu'on recrute parce que déggoon nañ fi ay jamono problème quota sécuritaire déggoon nañ fi o ay jamono ay recrutement yoo xamante ni nee nañ ay recrutement partisan lañ dégg dinañ fiy gis au niveau du du ministère des gens yoo xamante ni peut-être amuñu compétence wala amuñu profil profil bi pour occuper yenn responsabilité bi day bloquer le système éducatif donc il faut dans notre démarche régler la question de la vision et régler la question du mana du manager à la tête du ministère suñ ko defee ci la ñuy mën a régler yenn problème yi parce que compte tenu du programme bi moom aussi euh, li ñu jàngoon la ñun démb ak barke démb mënuma jàng lii ba pare sama jarbaar war ko mën a jàng boo xam ne judd na mille bokkul sax. man mënu jàng la guerre de sécession wala ma jàng première guerre mondiale jàng deuxième guerre mondiale ma jàng la la révolution du sud le Japon du Meiji sama doom jàng ko c'est-à-dire histoire bi ñu may jàngal wala li ñu may jàngal sa date de très longtemps c'est-à-dire nous nag ñun duñu jàngal suñu suñu histoire bopp suñu taarixu bopp. dañoo xeeb suñu bopp. ça c'est un complexe donc il faut ñu revoir aussi le contenu de l'apprentissage parce que élève sénégalais bi. bitim réew la gën a xam que réewam. ñun daal liy métti mooy école bañ koy créé fii Sénégal. waaw dañ dañ doon wax ne école tubaab bi. voilà école française maintenant il faut ñu dem vers une école. sénégalaise mhm. mais pour ñu dem perdre une école sénégalaise il faut avoir quelqu'un à la tête du ministère ku mën a am vision bi am taxawaay bi am comportement bi wàññi politique bi. à la ministère. oui. ok c'est-à-dire à la tête du ministère de l'éducation nationale.

donc ça veut dire que réforme yooyu ñu ant waroon entamé defuñu ko pour man question de profil la. Mmh. parce que da ngay fàttaliku coow li fi amoon au niveau du ministre de l' enseignement supérieur ba ñuy démarrer réforme yi au niveau de l' enseignement supérieur coow bari woon na waaw wala déet mais réglé na ay problème au niveau du ministère de la de, des universités au Sénégal réforme yu bari yooyu ba coow li bari université yi di xëcc étudiants yi di xëccoo. dañ leen boole dans la réflexion mu indi mu permettre ñu regle ay problèmes yu bari bari bari bari bari avec le ministre Mary Teuw Niane te invité woon nañ ko fii suñu suñu plateau donc pour man secteur bi pour ñu defar ko il faut ñu def def ay réformes yu profondes su ñu defee réforme bi nag mais kiy def réforme bi day fekk mu am profil bi wàññi politique bi wàññi <coughs> bon euh, wàññi politique bi wàññi par parbloo bi wàññi lu bari parce que école sénégalaise aussi soo gisee politique bi dafa dugg trop ci biir école sénégalaise tous les partis politiques sont à l'intérieur maintenant réforme yooyu dina ko andi dina war a mun a permettre ñu diminuer ay situation yu bari loolu mooy benn réforme yi day tax parce que engagement triquinquennal la ñu amoon n'est-ce pas directeur soo duggee ci système éducatif bi da ngay def 15 ans bala nga ciy génn loolu dañ ci war a dellusiwaat pour nga mën a téye CREC da nga daan def 4 ans de formation léegi 6 mois lañ lay former des fois sax trois mois. pour nga war a mën a téye CREC day am di problème ci niveau apprenant yi donc réforme yu bari lañ ci war a mën a def pour permettre école bi euh, ñu war a régler des solution à l'école sénégalaise parce que tant que ñu vision bi régler la la question du manager à la tête yaakaar naa ne école sénégalaise fu mu taxaw fa lay taxaw. alors Birama ñu dem ci euh, monsieur Diagne. DG. je pense que mhm. mhm. te école sénégalaise. li li ñu nekk ñun ñëpp moo ñu ko def. Mhm. kon nag bënul. ndax ñi toog fii yëpp li ñu nekk école sénégalaise moo leen ko def. Mhm. est-ce que ma ñëw ma ñëw sidon sidon tey xëy na baykat sàmmkat nappkat wala tailleur comme sama papa loolu doon dañ ci d'accord ñun ñii yëpp aussi jël nañ ci école sénégalaise taxul ñu nekk ay tubaab. Mhm. loolu tamit il ñu d'accord ci. ñu ñëpp ñun ci école sénégalaise taxul ñu nekk ay tubaab on a conservé notre religion muy muy l'islam euh, on a conservé aussi nos traditions ñu ngi dem ci gàmmu yi ñu ci màggal ñu ngi am suñuy sëriñ ñu ngi ziar yi ak yooyu demee noonu donc loolu loolu c'est alors affaire éducation euh, éducation aussi dafa am dangeen ngeen di <laughs> éducation dafa am institution xale bi xale bi euh, ñette ko seq yàlla rôle des parents ñu si bëri dañoo démissionné dañuy dundal seen doom rek jeex na moom daal na lekk la naan euh, wan saa yi bala nga ñëw sax école dañuy jox kay ne dàq nañ sa doom parce que ça ça nous arrivé. souvent am na parent yoo xam ne ba la ñu gisee ci école bi rek mooy dàq nañu xale bi donc xamuñ sax ku leen jàngal parfois da yoo xam ni bu dee ci école privée yi xale bi day toog 6 mois du fay ndax day lekk <laughs> day lekk fay bi ba ñu dàq ko et cetera donc rôle parents yi. c'est c'est c'est fondamental parent bu nekk ci sa yaru doom dafa am loo xam ne yaa ko war a ndax xale bi mu ci kër gi ndax mu ngi tëdd heure ñan lay fréquenter man sama bi mu daan jàng bu ma àndee ak ñenn ñi da dama koy tere na yow da ngay jàng waroo ànd di waroo ànd ak ñii. Mm-hmm. bokk leen mais est-ce que ñun suñu doom yi ñu ngi xool ñun la ñuy àndal suñu yoon suñu yoon nekkul ci loolu donc loolu il faut yàlla rôle des parents école bu ñu def lépp c'est pas possible. am na aussi euh, école bi muy école franco-arabe muy daara muy li ñuy wax école française ku am sa doom aussi dangay def ci moom diine danga nga war a góorgóorlu ba vacances yi nga yóbbu ko fa mu dëkk bu dee village la mu xam ne benn àdduna am na bu dul Dakar ba nga yóbbu ko village noonu la ñu daan def yóbbu la village nga dem ci ay tool yéeg ci ay mbaam yéeg ci ay fas dem ci ay ay déeg ay marigots xam nga dund dund village waa après ñu waxtaan ak yow euh, wax la sa cosaan ne la diimi sa mbokk la nga xam say mbokk ñan la mais loolu est-ce que amati na je de crois pas y a am na ay dakaara yoo xam ni boo leen ne sax euh, kii yenn zone yi ci ci ci route de ay buun ak yooyu xamuñu ko dakaar lañ toog fii. mais les contextes ne sont pas les mêmes. damay ñëw rek dafa am loo xam ni. Mm-hmm. école du ko def. yow nga xam te ni yaay parent bi <coughs> jël responsabilité jur sa doom yaa ko war a xamal mooy kan fan la bokk lan la mën a def ak lan la mun a def ba de temps en temps nga toog ak sa doom nga waxtaan ak moom nga xamal ko yenn yi parce que boo ko informé wul mbedd mi aussi mi ngi koy xaar sunu xale yi ñu si bëri ñu ngi tox yàmba quoi même autour des écoles da ngay gis ñoo xam ne dañ fay jaay sàngara wala wala yàmba da nga koy gis. loolu aussi ñu bàyyi ci xel ça c'est le rôle des des des parents ku am sa doom parce que les enfants n'ont pas demandé à venir bul defe ni keneen moo la ko war a yàlla yaa ko war a jabar yow sa sa responsabilité la yaa ko war a dugal école yaa war a fexe muy dem ci daara ji yaa war a fexe muy dem muy def église di dem ci def ay catéchèse yow la d'abord suñu paree état bi nag war a organiser mbedd mi ba xale yi ni leen yare ci école bi di leen yar ci ci ci ci ci kër yi bu ñu jëndee ci mbedd mi mbedd bi du ko yàq. c'est quoi la ci mbedd mi. maanaam euh, délinquants yi nekk ci mbedd mi xale yi euh, ñu ci bëri wax naa ko sànq ñu élèves yoo xamante ne bii nga leen jàpp bu ñu génnee euh, comme bu ñu amee donc. permanence ak yooyu bu dañuy génn dem tux yàmba wala ñu génn dem dem bu dee jigéen la da ngay jékki-jékki rek nga dem jëli ko ci benn kër. parce que am ñu leen di détourné dañuy ay xale yoo xam ni dañuy ñëw jor seen moto seen papa am na xaalis ñuy rôder autour des écoles pour xale yu jigéen ñi ça tout ça on l'a donc il faut ñu organiser mbedd mi la rue protéger xale yi ba yenn fréquentation yi duñ ko am suñu paree nag ñu doog a ñëw ci école bi école sénégalaise souvent suñ koy wax daan waaw euh, dañuy jàng comme ni ko wax Japon dañuy jàng Chine yooyu foog ñu koy jàng parce que nag on ne doit pas former des situations des citoyens qui ne sont pas cultivés ça aussi il faut que ça soit très clair il faut ñu jàng Japon il faut ñu jàng Chine il faut ñu jàng États-Unis il faut comme ni ñu ko waxee parce que euh, ñun euh, bi ñu bëgg a former xam nañ ko on a dit un Sénégalais ancré dans ses valeur mais nag ouvert au souffle fécondant de l'extérieur da ngay toog ci li nga moom waaye na nga ubbeeku ba lépp lu baax ci bitim réew nga jël ko. nga ah, léegi nag toog moom boobu mooy problème bi. naa nag euh, non moom laa la ko même souvent koy wax. histoire la ñuy wax. Mhm. naan est-ce que si. Ah si ñu ngi koy jàng. l'histoire de Lat Dior yaa ngi koy jàng. la bataille de Dekle. non ñu koy jàngale. cinquième. comme première s'il vous naa l'histoire en cinquième jàngale naa ko jàngale naa ko première ñu ngi koy jàngale même les crises en islam dañ koy jàngale fii nu fi l'islam dungee les almoravides <laughs> dañ koy jàngale cest à ñu ngi jàngale histoire wax ma sax histoire le royaume du Mali yéen jàng ko le royaume du Songhai jàngale wuñ ko les royaume africain ñu ngi koy jàngale ci ci ci ci ci programme bi problème bi di loolu problème bi mooy suñu problème mu école. c'est la langue d'acquisition du savoir. Okay, là mooy tubaab bi nga xamante ni bii dafay dafay am avantage ci sénégalais bi parce que moom langue bi nga xam ni moom la nàmp ci lay jàng mat ndax xale bi nga xamante dafa ne ci àll ba mosul dégg tubaab boo ñëwee ne ko waa boo jëlee ba euh, un plus un plus de mën na ko bañ a xam hmm. mais xale ba ne ci àll ba. mosul dégg tubaab boo ñëwee waaw su ma su ma joxee benn teg ci benn teg ci ñaar bu defee nii xam nga xam ne xam na luy benn mm-hmm. bu defaatee ni def nii daan la ñeent mm-hmm. parce que quatre xam ko ci français ak ñeent xam ko ci olof c'est la même chose mm-hmm. boo gisee jàng science bi jafe ci ñun langue c'est c'est c'est la littérature tubaab bi mathématique di utiliser wala science physique di ko utiliser parfois sax un prof de français mën na ci am problème. waaw. <coughs> loolu moom ñëpp d' accord nañu ni mais du futu kenn parce que ñun on n'a pas demandé à colonisé parce que xale yi japonais bi xale français bi xale yi américain bi li ñu rawee rek loolu rek mu la. maintenant nag malheureusement pour nga refondre éducation ndax comment am nañ ci ay ay commence nañ ko ah les langues nationales sont introduites avec le MOEPS ñu ngi def bilinguisme.

loolu ñu ko war a régler te am am ñoo xam ne ay soninke lañu mm-hmm. mos ñoo olof est-ce que nit ñi dañ nangu ñun ñëpp jàng ci benn comme tubaab ñu jàng ci benn langue olof problème la mm-hmm. loolu daa c'est-à-dire il faut nga refondre éducation maanaam bépp livre ah, boo xamante ni bii day joxe xam-xam da nga koy jox ci langue yooyu yëpp sur les vingt deux langues codifiées mm-hmm. on parle même de vingt mais vingt deux langues codifiées yëpp il faut d'abord langue euh, nga former formé wat jàngalekat yëpp bi livre yëpp nga bindaat ko te wolof bi ñuy wax ni man def naa wolof deux ans wolof euh, wax ko moo gën xam di moo gën a yomb jàng ko de. mais mm-hmm. chaque jour ñu corrigé mbind mi chaque jour ma bind olof ñu corrigé ma <laughs> ah. Aziz Mbodj chaque attention donc il faut ñu refondre repenser lépp loo xam ne xam-xam la ñu def ko ci làkk yi am Sénégal yëpp mm-hmm. loolu nag yombul commencé nañ na problème quand même pour man 1996 bi ñu ko bi ñu ko njëkkee calculer pour refondre le système il fallait à cet époque-là 594 milliards pour refondre ko boobu Sénégal sax budget ndóol noonu donc euh, il va falloir presque euh, doubler et même Sénégal pour que ñu mën a refondre suñu éducation léegi nag li am solo mooy commencé nañu curricula yi aussi li ñuy jàngal xale yi nekkul ci pour man nekku ci li ñu leen jàngal déedéet maanaam li ñu leen jàngal moo bari mm-hmm. Mm-hmm. te léegi wax dëgg yàlla am na yoo xam ne jawatul jàngale tuuti xale bi am na téléphone am ba tablette bëggee xam tout de suite que le du kanada day def rek ñu wan ko. Mm. ak explication yi. am na yoo xam ni wax dëgg yàlla si léegi ce qu'on appelle les contenus loolu jaratul lu ci bëri ñu ci insister parce que xale bi mën na koo mën na koo xam à l'instant non mais bu ñu ko ni ñu koy jàngalee la aussi xam nga l'histoire du Japon boo koy jàngalee nga def ci dix pages jaru ko en une page mën nga def l'histoire du Japon li ci des nga ne ko dama nga def say recherche mu def ay recherche am bu ñëwee nga résumé ko ko en une page li li ñu soxla ci histoire du Japon loolu nga koy loolu nga koy jox l'ère du Meiji comment le Japon mm. est passé d'état très pauvre à état développe donc loolu loolu mooy li nga xam ni mu am solo donc ñu ngi revoir curricula yi gën koo adapté aussi parce que gis nga réforme éducation <coughs> même suñu réforme woon lépp tey ñun dans vingt ans ñuy ñëw dañ naan ah li ñu doon jàng c'est dépassé éducation réforme nañu ko presque dix fois c'est-à-dire loo xam na koy réformer rek mu jeex déedéet daanaka dix ans yu nekk da nga war a réformer ndax am na ay xam-xam yu bees yu yuy ñëw mm. euh, te loolu boo koy def aussi booy réformer tey bon engagé nañ ko avec l'IGF doo tëju rek ngay damay réformer tous les acteurs de la société ngay indi gis nga histoire du Sénégal bi ñu ko fi bëggee bind. moo tax même moo tax problème yi bëri. ah histoire du Sénégal bi ñu ko fi bëggee bind. yenn saa nga bindal Adama Fall euh, kii histoire maamam demoon na benn xarit Samba Sadio nga am noo ko bindee mu fekk la foofu ñu ne la non xarit Samba Sadio sama maam dawul. Hmm. da sama kenn gañu ma sa maam moo daw moo tax il faut faire très attention parce que maam yi aussi dañoo xeex am noo koy bindee da ngay créer problème parce que maam yi dañoo xeex dañoo xeex de. maam ñun ñëpp suñu maam dañ doon xeex yaa yu dee bataille te suñu maam fa nekkoon. am noo koy bindee. mais da ngay indi problème parce que professeur Ibrahima Thiam yàlla na ko yàlla yërëm amoon na problème yooyu. yooyu wallaay ku nekk bëgg donc il faut qu'on fasse très attention ñëpp li ñu bëgg mooy jàng ci sunu làkku réew. wut xam-xam ci sunu làkku réew former ay xale yoo xamante ne bii d'abord xam nañ seen réew bëgg nañ seen réew nangu nu liggéey seen réew am jom am ngor am kersa am fit mm-hmm. xale yooyu lañ bëgg. Mm-hmm. suñu màggee du ñu doon ay bu lañ jotee alal réew mi du ñu doon ay sàcc. Mm-hmm. loolu nag foog nga indi daara. mu dugal diine. moo tax depuis 2012 dugal nañ enseignement religieux. ci euh, système éducatif ci ci ci école publique dugal nañu fa enseignement religieux. Mm. parce que la religion dafa am solo ci doomu aadama. catholique catholique yi moom déjà euh, pour le christianisme duggoon na bu baax avec mm. leurs écoles mais l'enseignement religieux léegi dugg na bu baax même ce qu'on appelle la modernisation des daara parce que dañoo jàppoon ni ku nekk daara jàngu ñoom ñi ngi waxtaan ñi ngi def ay loi pour que daara yi daara yu bëri aussi ñi ngi leen di pour que xale yi nekk foofu nekk ay citoyens sénégalais aussi bu ñu fa jëndee ñu bële ko métier mais li ma gëm aussi mooy il faut euh, éducation nationale ak formation euh, professionnelle enseignement technique yëpp ñu boolewaat ko su ko defee ji nga xale yëpp jarul ñu dem université xale yëpp jarul ñu dem lycée je pense que am na xale yoo xamante ne bii à de CM2 dañuy am sa problème pour am certificat xam nga ci dara. Mm-hmm. te pourtant boo leen yóbboo léegi jox leen portable ñu defar ko. nga yóbbu leen mécanicien ñu réussir. je pense am na xale yi bi dañ ko war a def. te ñun dañoo amul habitude kii bi orientation yi à de sem2 ñu ñu ñu commencé xool xale yi. sem2 sax ñiy continuer même dans les maisons. da ngay xool sa doom nga xam lan la. lan la nga nga yóbbu ko foofu. ñiy continuer ci enseignement général ñiy continuer enseignement technique bu ñu demee ba troisième aussi bon de façon ci assises yi waxoon nañu 30 pour cent xale yi bu ñu déggee troisième ñiy dem. Ah, continuer enseignement général parce que am nañ niveau bi ñu des dem enseignement professionnel ou enseignement technique il faut parce que Sénégal aussi dafa soxla ab réew dafa soxla ay cerveau mais aussi dafa soxla ay loxo yoo xam ne mën nañ dara donc pour man c'est ça la réforme majeure li ci des nag mooy mhm. ak éducation bu ñu mën a am te parents yi démissionné éducation boobu dox xam nga lu tax dafa am jàngi ak jàng mhm. jàngi ñu ngi koy def école boo ñëwee Euh, professeur bi maitre bi jox la xam-xam bi mais 60 pour cent ci kër ga la. jàng bi mooy révision bi. Mhm. defaat exe def exercice yi. Mhm. ak yu demee noonu. te loolu parents yi doon jàng il faut parents léegi répétiteur la ñuy wut. bu ñu njëkk da am parent boo xam ne jàngul. wallaay xam nga muy def day simuler quoi. maa ngi da am am leçon bi yow daal xool daal waxal nga wax mu mu tëral mu toog mel ni ko xam li ngay wax. Mhm. day obligé nga jàng. loolu la man par exemple sama papa daf ma jàngal bind arab may def c mën naa bind arab soo amee leçon le corps à trois parties <laughs> la tête <laughs> le tronc ma bind ko ci arab jox ko mhm. dem jàngi en tout cas su ma ñëwee ma bu ma resté moom day xool ci arab ndax moo ko def mais ana parents yu def loolu léegi jot bi amul dañuy man mi di wax ak yow nii man mi wax yow nii su su pen du mu ma jàngal samay doom parce que dama leen yërëm. ok ba pare ba pare sax moom laa wax sànq que ne les contextes ne sont pas les parce que tamit jamono yi bokkul mhm. ah, jamono bu njëkk baak yooyu parfois sax même bu dul même bu dul papa bi wala yaay bi danaa am ci kër gi mhm. benn Birama Kamara bu fa nekk boo xam ne ah. mooy doon grand frère bi wala moom moo leen di jàngal boo ñëwee moo lay mais léegi da ngay léegi da ngay fay école mu cher da ngay fay école bu cher. wallaay ut dem uti waat répétiteur parce que da ngaa bëgg sa doom am examen. mais absolument dem c'est dépense yi si boppam moo bëri. ci ci biir école mën mën yenn affaire ba pare toog nag bëgg a nekkaat encore ci kër gi mais bu njëkk école bi yomboon na les les les enseignants wax dëgg yàlla ils étaient beaucoup plus plus passionnés que les enseignants d'aujourd'hui te ba tey contexte yi bokkul. parce que jamono yi bokkul Birame ah, loolu déjà benn aspect bu am solo la jamono yi bokkul ci ci problème bi nga xamante ne moo nekk ci enseignement bi ci mooy la bokk mooy da nga daan dugg ci enseignement par vocation par vocation hmm? da gis ñi nga xamante ni ñoo doon doon ay enseignant ba ñu nekkee gone sax dañ daan foo di hmm. jàngal di jàngale ndax bëgg métier bi dafa mel ni hmm. am na journaliste yoo xamante ni ba ñu nekkee CM2 wala primaire ba léegi dañuy rêvé nekk journaliste Mm-hmm. yàgg toppandoo ay présentateur yàgg defar ay micro di ko fowe mm-hmm. xam loolu dafay am mm-hmm. métier boobu boo ko bu dee da ko passionné di ko rêvé ba dugg ci fonk bi nga koy fonk ak ni nga koy téye bokk la ki nga xamante ni crise moo ko ci dugal bàyyil ma jafandu ci en ma gis gaal gi pour ma dem bitim réew wala xam nga bàyyil ma jafandu ci nii en attendant enseignant buy jël buy jël gaal moom c'est bizarre xam nga jamais vu ça enseignants bëri tey boo leen yeewoon ni leen qu'est-ce que vous voulez devenir d'ici deux ou trois ans duñu la wax enseignement lañ bëgg nekk Hmm. donc xam nga ñooñu dañ ko jàppe benn benn escalier boo xam ne dafa am leneen lu ñu bëgg a yóotu hmm. donc àq bi duñ ko ko mën a jox bokk na ci mooy l'autre aussi euh, man bu ma déggee directeur di wax moom réponse li mu li mu développé ci crise des valeurs moo ëpp li mu développé ci les mots de de l'éducation hmm. déglu nañ ko ah mais li mu développé ci crise des valeurs moo ëpp lu mu développé ci les mots de de l'éducation ou de l'école sénégalaise problème mu enseignant yi gis nga wax na ba pare tudd ko hmm? li muy euh, pénurie enseignement li nga xam te responsable waaw li mu li mu wax ni responsabilité état ak politique bu claire bi nga xam te dañ ko war a définir ah loolu sentiruma ko ci ay waxam parce que état mooy définir ay politique nii laa bëgg école sénégalaise man tëgg ko waxtaan ceeg ay nit dafay assise bu ñu paree yow yaa xam joolaa nga yaa xam séeréer nga loo mënti doon li ñu tëgg loolu danga koy appliquer ndax tubaab bi dafa ñëw forcé ñu làngam forcé ñu gis-gisam te ba léegi dam na bàyyi ñu fi dam na forcé ñu histoire bàyyi nañu fi depuis plus de 60 ans ba léegi ñu ko ci ñun kon ñun ñun la neex ñun la waaw mu ngi wax naan on n'a pas euh, on n'a pas voulu être colonisé on n'a pas appelé à mais ñeneen ñi dañ leen coloniser woon les dragons asiatiques la dañ leen coloniser woon da nga fàtte mm-hmm. Chine ay Singapour Hong Kong dëkk yëpp dañ leen coloniser woon Inde dañ ko coloniser woon mu tey ond bokk bokk woon ci la parle de de de de de United Kingdom bokkoon euh, euh, Angleterre Inde bokkoon na ci perlam bugg ko woon sax perte. Hmm. Hmm? mu tey Inde dañu am seen langue dañu am seen. Euh, seen seen alpha dañu am seen hmm. seen seen seen alphabet. ah ci la ñuy sa. mais comme deuxième langue. comme deuxième langue. comme am angle comme États-Unis ni ñuy jëlee espagnol daf ko deuxième langue. non Inde moom dañoo dañoo dañoo ancré la deuxième boorul waaw moom laa la expliqué. dragon asiatique yi Corée yeneen dëkk yi ngay gis yëpp ban lan mooy seen langue première. seen langue ci la ñuy jàngee xam-xam moo tax lan moo tax ñu ay ci science. parce que ci mm-hmm. science yëpp lépp seen langue lañ koy defee. Mm-hmm, te man dama jàpp ni coow li li muy bëri bëri yëpp. amul benn pays bu développé au monde boo xam ni langue jàmbur lay utiliser comme langue officielle amul. développé ba tolloog ñoom mënta ne amul benn pays bu développé au monde bu utiliser la monnaie ah d'autrui pour développer ci mënta ne. xoolal dafal dafal dafal xoolal adduna ba mu daj ban pays nga gis mu développé mu utiliser beneen mone jàmbur wala ban pays moo développé utiliser làkku jàmbur di ci sàkku xam-xam wala di ci transmettre savoir amul. kooku ngay utiliser langam munoo muus a muus ba roppi ko ki ngay utiliser xaalisam munoo muus a ko muus ba économiquement nga roppi ko loolu mënta nekk parce que moom moo France mhm. bi garantir suñu CFA bii mais trésor trésor français boo fa demee or ba fa nekk kan moo ko moom France du producteur d'or mhm. te bokk na ci pays gën a de pays pays euh, ci baron économique yi monde bi fan la ko wér mais c'est parce que dañ fa déposer suñu suñu ay garantie yooyu dafa nekk ay exemple yoo xam te il faut que ñun ñu nangoo départir ci chaîne yi on n'a pas euh, dem à coloniser waaye colonisation dafa jeex il faut que nag ñu tabaxaat li ñu bëgg dina metti mais tant que ñu ngi naan kañ la kañ la kañ la kañ lay doon mais vaut soobu ci te xam ni un jour l'autre ah non mais raay bi dina uyule wu comme il faut. xam nga xam hmm? yi ñuy posé. waaw yi ñu war a posé. l'autre chose aadama bala maa jeexal mooy beneen bi hmm. mooy. bëgg lépp lu ñuy def tàllal suñu loxo di ko xaar ci bitim réew. Hmm. dañu bëgg a defar suñu suñu bind suñu histoire ah les mémoires du Sénégal nangam nangam <laughs> on a besoin de tant de milliards on demande on attend euh, l'apport des bailleurs. lépp lu ñuy def ñun dañuy xaar extérieur mu ñëw dimbali ñu ci. kooku di ñëw di dimbali am ay problème dëkkam day ñëw rek jox xaalis ni ni la ni la maa la ko jox ci xol bu sedd dem ba di ah, jàngi olof tubaab bi dem ba ah, jàngi olof ñëw léegi romb Adama Fall mu sant Fall ñu koy tàgg tubaab bi waaw xoolal tey xoolal tey non non ah parenthèse foog leeral non non foog jëlee boo ko jëloon euh, pour cent yi partenaire technique financier ci 20 pour cent. Hmm. lay toll foofu la terewul ba tey ñu ngi lay defaral ay école ñu ngi lay defaral ay lasarine yooyu ba léegi bokkul sax. ci li ñu may bàyyi tuuti man ah, léegi. sànq yaa ngi koy yaa ngi leeral dama dama coupé a monopoliser parole bi ndax c'est un débat bu mais moom laa dugal ci notre programme de gouvernance bu ñuy wax paquet. Hmm. nga xam nga lay wax ban Sénégal yi la bëgg a former ban école la bëgg a taxawal quel est le profil d'entrée à partir du préscolaire de la maternelle quel est de sorti ba université loolu ñun ñëpp xam nañ ko yi nga li ngeen wax yëpp ñun ñoo ko bokk parce que école sénégalaise ngeen jaar ci école sénégalaise lañu jaar mais mais euh, il faut jamais perdre de vue que nous sommes un pays sous-développé tey sa kër boo fa bëggee togg tey nga bëgg a reeree kii comment kii couscous hmm. marocain bu am ginaar hmm. te amoo njëg la mën na indi compliqué nous sommes un pays sous-développé on n'a pas encore amuñu alal ju ñuy permettre dégg wax sànq su am nañu alal ji on y dañuy refondre euh, le, le carrément le système éducatif xam-xam bi ñuy wut parce que ay maths sciences physiques SVT euh, dara jafewu ci waaw léegi non bàyyi bàyyi rek ma ñëw garaaw mën nga invité bàyyi rek ma ñëw c'est-à-dire que euh, mënuma dugg fii ak yow ci le le document de gouvernance kooku benn xañu sax ci fukki émission mais dama bëgg a wax ni yi ngay wax ni on l'a intégré ba ñu ngi réformer les curricula mais curricula yooyu même suñ ko réformer dans dix ans vingt ans ñu ñëw dañ koy dañ koy réformer war parce que c'est condensé dafa dafay ànd ak ak ak wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu xam-xam li ma la wax aussi ci colonisation bi dama ne waxuma ko pour justifier quoi que ce soit dama la on n'a pas demandé à être euh, colonisé léegi stigmatu colonisation yi moo ñu topp parce que yi yi ñu yi ñuy wax ni di ko jéem a régler war nañu ko régler il y a 60 ans. Mm-hmm. il y a 60 ans bi ñuy créer école bi on aurait dû imposer nos langues euh, nationales. vous pouvez pas. man man laa lay expliquer nii. léegi gouvernement bu ñëw xam ci looy nekk. des politiques de loo xamante ni bii war nañ ko def 40 ans yow yaa ngi koy def moo dal moo moo ngi dal ci infrastructure yi moo ngi dal ci ci leneen ak leneen ak leneen école bi ñu bëgg ñun ñëpp école bi ñu bëgg wax dëgg yàlla mooy école boo xamante ni bii day former euh, donc des des des africains nés au Sénégal d'accord léegi loolu tu as ba ba ba Birame bàyyi ma ñëw rek ba man nga yaa ma invité bàyyi ma wax ndax boo waxee wax ji jarul nga <laughs> ma invité mm. te aussi man maa nekk au cœur du du du système am na yoo xamante ne bii yow xëy na maag araba moo ko ñoo koy xam éducation moom ak sport euh, yamuñu yamuñu yamuñu nekk mais yamuñu parce ñëpp dañ koy subir mi mel journalisme bi non dañ koy subir sur le drama journalisme bi pourtant daf nañu koy commenter journalisme man j'ai une vue de l'extérieur mais li ngeen li ngeen ci xam man xawuma ko xam nga yow ni ngay bindee nii man du ni laay bindee ni ngay defee ay notes nii man du noonu laay defee ay ay ay notes bokkul bu doon jàngalekat yi man man not yi pour man nga soit nga def ko nii tout à fait à droite man saa saa dafa ma xaw a intrigué pourquoi seen nor yi nekk nii te boroom ñun dañ koy def à gauche. Hmm. donc bokkuñu euh, lu ñu lu ñuy toogee parce que boo toogee fii mën nga commenter mu ngi mel ni kii football xam nga da ngay commenter kii xamul dara waroon na paas waroon na kii mais bokkul la ki nekk ci terrain bi di football moo arbitre bi daw ñun dañoo nekk au cœur du système nekk ci jàngalekat d'abord man yàlla dafa maa dimbali jàngale naa primaire jàngale moyen jàngale secondaire nekk conseil technique. nekk directeur directeur yi nekk éducation yëpp maay seen doyen donc donte la maguma ci maay seen maa leen fa jiitu donc am naa lu ma xam quand ci ci système bi yi ngay di naqarlu moom la ñuy naqarlu mais du mais il faut il va falloir du temps. Mhm. pour ñu yegg fa il faut que ñëpp comprendre que. boo gisee ma centré essentiellement aussi ci ci ci parents yi c'est pas pour rien parce que wax dëgg yàlla ku ku am sa doom bu ko bul def lépp par procuration am na un minimum boo xam ni yow la war. am na yaa ko war a def ci sa ci sa ci sa doom. ok voilà c'est bon <laughs> voilà li ma doon wax rek euh, directeur merci parce que li nga wax aussi am na solo. yéen a nekk au cœur mais ñun fi ñuy wax di woo parent de d'élèves di woo ñi nga xamante ni ñoo seq école parce que école tamit ñi ko seq dañoo bëri acteurs yi dañoo bëri donc loolu c'est juste parce que dafa nekk loo xamante ni yëfu ñëpp la. Mmh. yëfu ñëpp la c'est pas parce que yow yaay acteur mmh, bon du benn domaine boo xamante ni c'est clos du laa la wax moom laa la wax moo tax ma tax ma ne la xam nga tey les familles d'acteurs école bi benn pàcc lañ ci moo tax ma parent bi wax naa sax mbedd mi yar bi moom ñun ñëpp ñoo ko bokk mais dafa def mutation jóge ci élève dem ci apprenant du dëgg école jóge ci instruction dem ci éducation ñu dem ci apprentissage xam nga crise de valeurs yi ba mutation bi amee ca la am que école moo daan yar d'abord waaw moom laa wax école moo daan yar d'abord bët bu ma doon xoolee sama maître bokkul ak sama doom bët bu muy xoolee jàngale kanam parce que sama sama élève man su ma gisaan sama jàng sama provis enseignant dama daan daw parce que dafa ma daan yar élève bi amuloon temps parce que dañ daan xëy suba huit heures wàcc midi dugg quinze heures wàcc dix-sept heures tey dañoo am jot l'enfant du jàng lundi soir du jàng mercredi soir du jàng vendredi soir day jouer c'est vrai école bi def na mutation mais mutation bi dañ ko war a xool ndax baax na wala baaxul parce que dañuy jàngale. dañ koo xoolul bu baax. suñu ba ñu doon ba ñu doon bu jàngalee. sam papa neen du noonu la ñu war a jàngalee suñuy doom parce que xale bi moo ñu mag Piaget moo ne l'enfant n'est pas une feuille vierge il vient toujours avec ses connaissances du ni nga jàngalee sa doom du yow yaay joxe xam-xam mais xale bi mooy génne xam-xamam nga nga orienté ko ci. Ah, c'est l'approche par les compétences. mooy curricula bu bees bi. waroo ko xam. Hmm. moo tax ma xoolal sànq ni am na loo xam ñun ñoo ko xam. non xam nga loolu c'est c'est c'est bien beau ces expressions ces termes. vas-y vas-y les paquets les ceci les cela du concret. lan la résultat yi joxe loo xam te ni. en tout cas lenn daal xam naa ko d'accord d'accord naa ci ak ñun. tënk ay paquets xam nga ñun Sénégal moom on est champion de ça ay slogans de ceci de cela. et concrètement nan nga koy expliquer jaaykatu c'est-à-dire nan nga koy Adama Fall nan nga koy expliquer jaaykatu caaf bi paquet seen bopp seen yéen a ko tëgg non su ma doon dem dafa am fu ma doon dem fu gën a garaaw xam ñun ba ñuy jàng dama lay école privée c'était pour les cartouchards waaw mais moom laa la wax parce que les meilleurs étaient dans les écoles publiques Adama Fall maintenant ku ñàkk ki da koy day rey boppam pour yóbbu doomam ci école privée ba pourquoi parce que nous avons un de formation on a problème de recrutement on a beaucoup de problèmes donc il faut que école sénégalaise delluwaat ca na ma nekkee woon. xam nga loolu lan lan moo résultat yi mën a dem xam nga problème bi dafa bëri dañ ñun dañuy jukki rek mais problème bi dafa bëri mais nag du du ñu nangu tamit ñu ñuy newala nelawal ak ay expression yoo xamante nii les initiés wala ñi nekk ci milieu bi ñoo ko xam hmm. ay taxaw fii naan ñu pap 2A pap 2A génn ci jaaykatu caaf bi nga wax ko pap 2A mu dund ko moo gën yomb nga koy sonal ak ay discours en longueur de journée Sénégal émergent nit ki dund ko non dama la bëgg wax ak expression yi rek yéen ay jàngalekat yi am ngeen seen expression yoo xam yéen a ko moom tënk ko ay paquet ay ceci cela sigle yi bëri na mais ñu dund ko gis ko concrètement moo ñu gën a ñor loolu la ñu bëgg parce que problème bi mooy déjà bu ñu dama lay wax luy entrer par les compétences non non non yooyu ay leçon nga ñu nar a jox te daf ñuy gën a nelawal temps bi tam xam nga par exemple xam nga lu ñu bëgg mais bàyyi ma bàyyi ma lu concret seconde 30 secondes xam nga lu ñu non non xam nga tey bu ñu gisee ñu ni par exemple un élève de la classe de troisième mmh. de deux mille vingt trois boo xoolee ay capacité intellectuelle am ñu ngi koy méngaleeg un élève de la classe de CM2 des années soixante-dix dëgg la dëgg loolu du dëgg mhm. loolu li am fii problème bi am fii moom la waa France di jooy mhm. niveau boobu di baissé mais loolu dafa leer mhm. ñun tey suñu wax ak suñu parents yi suñu parents yi français mais pa ñii pa yi dañu naan xanaa ñii argot la ñuy làkk verlan xanaa verlan la ñuy làkk seen français mu neexee suñu français ñun ñi jàngoon méthode Clark seen français bokkul ak ñeneen ñi ah comprendre kon niveau yi mu ngi wàcc xam nga yooyu yëpp ay xam nga yooyu yëpp ay problème la hmm. yooyu yëpp ay problème la niveau bi li nga xamante ni mu ngi wàcc ay problème la tout à fait syndicat yi demande chaque année même problème yi ñuy menacer école bi école bi du dem xam nga waaw xam nga yooyu yëpp ay problème la Mm-hmm. yooyu yëpp ay problème mots yi dafa bëri de telle sorte que bu ñu taxawee ci benn point mën na jeexal émission alors que war nañ mën a lister mots yu bëri bëgg naa bala ñoo fay jógee ñu wax ñu déjà keroog conseil interministériel bi waaw ak premier ministre ak point point yi mu 18 point yi peut-être mu synthétiser ñu ko même sax leeral parce que fa yi am na benn polémique ci recrutement spécial bi waaw euh, parce que dama xëy rek gis sociaux yi ñu ni Euh, déficit bi huit mille enseignants la kon xamoon su fu ñu ko jëlee et que daañu recruter. cinq mille euh, voilà daal di Mamadou alors ce que je voulais dire mooy il faut xale yi def attention conseil inter interministériel amul amul prérogative jël décision recruter moom ay directive la joxe. waaw ki am ki mën a directive maanaam recommandation forte la comme am day am nañu déficit conseil ne nañu recruter ay jàngalekat. Mhm. def recrutement spécial. mais ki ki mën a ki ki mën a décider c'est le chef de l'État moom mooy def li ñuy wax autorisation de recrutement suñ ñu ko notifié ñun ñu doog a euh, passer au recrutement. mais ci directive yi la bokkoon quand même. moom directive la déglu ma la wax. Hmm. mais c'est pas c'est pas une décision. ok parce que la décision ne peut pas émaner de cette instance là. dégg naa aussi am na ay politiciens yoo xam ni ñu ngi ubbi seen bureau di dig xale yi. ci recrutement spécial bi certainement c'est lié au parrainage may wax xale yi ba fii may wax ak yow di ñun ministère de l'éducation nationale jotuñu notification wu. donc donc enseignement bi dañ ko bëgg politiser quoi. ma ngoog voilà am nga am na fii moom kii ku leen laaj xaalis dina lekk seen xaalis ku leen wax affaire parrainage vraiment ba fi may wax ak yow di fi ma toog ci 7TV man gisaguma notification bu ñu autorisé ñu. recruter bien que nag conseil interministériel bi. recommandé ko ñu def ko. Mm-hmm. li ci des nag mooy ay écoles yoo xam ni dañu nekk ci ci ndox mi. Mm-hmm. wàññeeku na bu baax parce que chaque année am na ay 300 écoles yoo xam ni yii ndox bi da koy nangu complètement yi à moitié yii c'est moindre mais am na centaine écoles yoo xamante ni bi moom novembre rek la ñu mën a ubbi parce que ndox mi nu mu fay duggee dafa dafa doy waar. Mm-hmm. pour pour wax rek waxtaan te wax dëgg wax dëgg ca la. donc école yooyu moom foo ko ñu xaar. ba euh, ba mois de novembre mën a ubbi mais nag bu fekkee am nañu plus de quatre mille collèges. Mm-hmm. am presque quat cent lycées. Mm-hmm. am plus de plus de dix mille écoles écoles donc li ëpp ci école yi nga jëriñ ci trois cent kese li ëpp ci école yi nag war nañu mën a démarrer les les les les euh, enseignes le les les enseignements apprentissage loolu aussi bëggoon naa ko bëggoon naa ko leeral ñu ñëw ci doyen tuuti ak lu ñu mën a wax nag résultat yi ngay xool foofu laay terminer toog nañ yàgg. pendant mm-hmm. des années on était entre trente. Mm-hmm. et trente trois pour cent. léegi bac depuis Covid bi. Mm-hmm. on est car entre quarante cinq et cinquante et un pour cent année yii yëpp on au dessus ñaari année passée on est au dessus de la moyenne. CFE jugee na. Euh, donc euh, soixante douze. ça ne règle pas le problème du niveau des. élèves non damay ñëw damay ñëw samay ñëw duggee na soixante mi ngi si. niveau presque quatre vingt deux pour cent si si si si je ne ah. m'abuse. Euh, donc. Euh, BFM mu ngi ci 76 pour cent ça veut que résultat yi mu ngi fii réformer aussi jàngalekat xam nga bu ñu dëkk jàngalekat dañ koy former 4 ans. Mhm. jàngalekat boobu BFM lay am. mais jàngalekat bi léegi boo amul bac doo boo ko gis nga crème bi bu ñu ko ouvrir ma concours bi ay doctorant ay doctorant ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci primaire bi. parce que parce que salaire bi baax na. voilà donc affaire réforme jàngalekat yi moom kooku kii nañ ko même. même même li mu wax nii par exemple dañ ko ko nuancé vocation la woon parce que da nga naan jàngale doo am dara mais léegi ak salaire yi nga xamante ni bi yor nañ ko léegi ñu bëri bëgg nañoo def jàng waaw léegi nag bi ñu amee salaire lañ bañ a jàng la lañ bañ a jàng la parce que jàngale wuñu mais mais nangoo fi ñoo def quand même non niveau n'est pas bon doyen le euh, de bons salaires te jàngale wuñu peut-être pour revenir sur euh, benn premier point c'est la langue ça la la langue française mooy premier blocage premier facteur de crise de l'école il faut qu'on admette que l'école française c'est c'est non je je veux dire que euh, c'est pas qu'on a choisi ou on n'a pas choisi la colonisation non la question c'est prenons notre indépendance linguistique est-ce qu'on est capable est-ce qu'on a le courage de dire que le français n'est plus notre langue nationale c'est la question politique c'est la volonté politique jusqu'à présent euh, benn président ñëwul fii ne je mets fin à cette option là donc ce que le Sénégalais lu ñuy xaar mooy que suñu falee nit ki ne français nekkatul suñu euh, làkk national loolu la ñuy xaar ci politique yi deuxièmement les même s'il y a quarante langues la volonté politique mais j'arrive s'il y a quarante langues il y a une langue dominante c'est wolof il faut faire il faut faire un choix politique donc discuter avec toutes les communautés c'est un choix communautaire que que nit ñi d'accord que dans l'enseignement on choisit le wolof mais ça ne signifie pas qu'on abandonne les autres langues non non suivant les localités les terroirs on va adapter le wolof langue dominante langue nationale à la langue locale c'est ce modèle là qu'il faut choisir mais loolu dafa laaj courage politique euh, pour moi il faut aller dans cette direction là que français nekkatul suñu langue nationale on prend le wolof comme langue dominante maintenant suivant les régions l'autre question bi nga c'est ce qu'on a tout ce que tu expliques là c'est un problème de gouvernance c'est un problème de gouvernance de l'école c'est-à-dire que même si aujourd'hui comme ni nga ko waxee quatre-vingts pour cent du budget ça vient du Sénégal mais le programme il n'est pas français il n'est pas sénégalais il est français ah si la langue principale qui véhicule les, la transmission c'est c'est le français l'histoire on n'a pas écrit l'histoire du Sénégal L'histoire qu'on enseigne, c'est un, c'est une histoire du colon jusqu'à présent. Non, je suis désolé. C'est, ben, c'est... non mais je vous donne un exemple. non je vous donne un exemple. vous allez au département de philosophie. vous étudiez là-bas un philosophe sénégalais. vous allez en droit. Est-ce que vous avez un seul intellectuel africain qui enseigne euh, un juriste sénégalais ou africain? Vous allez en médecine. Vous, avez dans le programme de la médecine un programme qui est issu de nos, connaissances. Il n'y en a pas. L'enseignement, il est français, il faut l'admettre. Même, même le curricula, la validation. Aujourd'hui, on est rentré dans le LMD. Le LMD, ce n'est pas notre choix. Mm-hmm. Le doctorat, ce n'est pas notre choix. Mm-hmm. le, il ne faut pas créer de confusion. Le choix qu'on a, il est français. ayons le courage de, de faire face. Le, le, français ne peut plus être notre langue nationale. On choisit le Wolof et les langues locales. La gouvernance, non, du ma sonn parce que non non non tu sais pourquoi du ma sonn non par exemple par exemple sur le le, le pulaar euh, les langues les nationales moi dès le départ euh, j'aimais bien le mouvement associatif mais ma dem au village en vacances j'étais le secrétaire général ma ñu toog di wax mais Adama dañu jël kàddu gi ne ma yow tu tu tu es trop français doo doo ñu diriger mais on nous a obligés à apprendre le pulaar à l'écrire à l'enseigner mais loolu c'est c'est à un niveau de mouvement associatif mm. mais imagine-toi si le maire mm. n'importe quel maire au Sénégal il dit que dans dans la commune là on apprend le wolof on apprend le sérère mais il faut réussir un programme en langue nationale c'est c'est la volonté qui manque ça on l'a commencé oui non bon euh, je, je veux dire en tout cas c'est un problème de gouvernance qu'on a il faut rompre avec l'ancienne gouvernance si on veut aller euh, dans la bonne direction je, je prends l'exemple bi nga wax te euh, sànq mais c'est pas le métier qui nous manque nous c'est que l'école ne forme pas les élèves au métier attention c'est c'est le colon là qui a fait croire que ben, ce qu'on a ici là c'est pas des métiers le métier c'est le bureau mais dans toutes nos contrées sauf Deme tu as des artisans tu as des pêcheurs tu as, des tailleurs tu, as tout... qu'on a ñoom ils se sont reconvertis ils étaient obligés d'aller chercher autre chose que d'être dans les bureaux parce que Mais on nous a mis dans la tête la bureaucratie. Mmh. Que l'enseignant, Adama l'a dit tout à l'heure, mais l'enseignant, c'était le modèle du village. Aujourd'hui, c'est le contre-modèle. Mhm. mais juste pour yokk ci li ngay wax rek xam nga bu njëkk nga judd ci famille caste. Mhm. mais loolu atuloo nga judd ci famille uude rek yow am nga métier pare. leneen lépp da nga koy yokk mais yow am nga judd nga ak sa métier nga judd ci famille forgeron am nga métier famille bijoutier yaa ngi dem école mais ngoon yaa ngi ca mbaar ma yaa ngi amaat beneen xam-xam yaa ngi am xaalis mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. Mm-hmm. déjà ouverture bi am na leneen lu mu lay yokk mais métier moom am nga ko ba pare mais bu ñu soofantalee métier boobu noonu sa métier bi nga xamante ni say maam ñoo la ko bàyyil say bàyyi ñëw war la ko jox ñu soofantal ko ba nga bàyyi mbaar mi bàyyi forgeron bi bàyyi cordonnerie bi bàyyi leneen ak leneen ak leneen imaginez hmm? mais même, te, même te... Je, je, termine par l'exemple du de l'école coranique mmh. mais qu'est-ce qui empêche le Sénégal indépendant mais le marabout c'était le rouage essentiel dans l'organisation des communautés mhm. dafa mmh. doon transmettre l'islam mais ce marabout là on n'a jamais compris que le daara c'est pas seulement pour l'islam mmh. le dara c'est l'éducation c'est l'instruction c'est la formation au métier mais pourquoi le, le, le, le tous ces islamologues là pourquoi on les met pas à l'école pourquoi l'État ne peut pas recruter ces gens-là pour introduire l'enseignement religieux ça, on est non ça ça c'est depuis longtemps votre ami xaritu xaritu xaritu xaritu doyen semaine dernière il a exigé que ñu jàngale histoire Serigne Touba gi biir école daara yi foofu. mais bien sûr. la exigé mais mais mais ce que tu dis là. ah directeur excuse-moi excuse-moi ce que tu dis là. c'est une volonté. c'est une volonté. il faut commencer c'est une volonté c'est une aspiration. mais concrètement écoute quand même on connaît Macky Sall. on connaît Macky Sall il est président de la c'est pas à six mois de son départ qu'il va croire aux gens qu'il veut une école sénégalaise. non ça ça transcende Macky Sall non lii ça transcende quand même xam nga ay eh, lan la ñuy jàngale ci école yi dañ koy waxtaan parce que bu ku nekk ne nañ jàngale suma maam wala nañ jàngale euh, li ma bëgguñ jàngale ko du sotti xam nga wax naa la sunu maam yi dañu xeex dëkk bi aussi ñi dañoo nekk lii ñi nekk lii ñi nekk lii on est obligé de nous retrouver autour de la citoyenneté ba bépp boo thème boo xam ni dafa war a indi division dañ koy dañ koy moytu dañ jàngale sëñ Touba ñu ngi koy jàngale ah ci ci école yi parce que dans les résistances résistance par exemple prof bi koy jàngale bu fekkee ne bi dafa nekk Dakar résistant bi gën a proche c'est Limamou Laye mm-hmm. bu nekkee dafa nekk dans le Diourbel bi gën a proche c'est Khadim Rassoul bu fekkee dafa nekk dans le Bawol Serigne Thiénaba bu fekkee nga ne bi dans le Kayor euh, donc Alaaji Malik dañ koy dañ koy ñu ngi koy jàng day sa xale yi dañ leen koy def sous forme d'exposé exposé lañ koy def maanaam dañuy dem def recherche euh, ci Sëñ Touba euh, def recherche ci ci Alaaji Malik mais la question là elle n'est pas simple bah ouais, je elle n'est pas simple hein. mais est-ce dans le programme. Non, je ne dis que c'est des enseignants oui. qui ont fait des études, qui ont des diplômes qui correspondent à ces spécialités ah, man man mi di wax ak yow naa ko sous forme ma dem xale yi ñu def ay recherche ñëw ñoom ñooy exposé ñu gars yi déglu ñu posé une question nga indi ay clarification mooy Limaamu Laay kan mooy ñu ngi koy def ci école yi doyul gaa hmm. doyul hmm. mais comme ñu ngi dem ci vers des réformes hmm. euh, curriculaires yi de grandes réformes des des curricula dañ ci yegg si même pour man loolu du problème problème encore Sénégal mooy langue bi ñuy wutee ah. xam-xam mooy langue français hmm. langue boobu mooy tardeel wut xam-xam bi hmm. parce que xale bi bala moo accéder ci xam-xam bi il faut mu franchir obstacle langue bi merci beaucoup les voisins nord euh, hmm? am na sax ay euh, sénégalais yu ci muus lool léegi nga xam seen bopp xam nga tey doyen mu ngi wax léegi bu jëm ci daara yi maa ngi dégg je pense que c'était hier Serigne Mboup qui disait que moom bi mu jàngee daara dem ba xam ne fi mu ne nii war na mën a jàng France quand il est parti en Europe nee bi mu demee dafa xool-xool ba si yàgg xam ne ñii li ñu koy jàngal moom mënu mënu mënu mënu ko ëppal que li mu jàng fii. et pourtant il a réussi mu ngi nii léegi te ñu bëri ñu ngi commencé di suivre ces exemples là donc la ñu gëm suñu bopp bàyyi suñu complexe bi mais nag non c'est pas un exemple sur nañ dem rek dem rek gone daara yi gone daara yi yor dëkk li fi nekk mooy li ñu <laughs> colon bi bàyyi eh, comme on dit tant que pas leur propre historien l'histoire de la chasse sera toujours en faveur merci merci DG <laughs> merci Birama Adama merci doyen merci un très bon week-end tous et on allah à partir de 11